internet Dakar Buzz TV waat nañ leen bu baax a baax am mbégte jàkkaarloo ak yéen ni ko defee saa su ne seen émission li ci biir dellu siwaat waxtaane tey thème bu am solo muy criminalisation homosexualité gis nañu ko ci Sénégal ne nañu mi ngi fi jël ampleur bu am solo tax na nag ñeneen ci kuréel yi duppee seen bopp ànd sàmm jikko yi tàmbali rek li nga xam ni moom mooy xeex bi col yi nag bari na lool lu ne ñu leen koy jiiñ waaye itam lu ne ñu ngi ko ciy wax Sénégalais it am ci seen xalaat Fatima ni mu koy defee saa su ne émission li ci biir ñëwee dem na tàllal leen sunu micro ngir rek ñoom it ñu wax yëf yi ah, ni ñu ko bëggee ci plateau bi duma ci wet benn yoon ni ko defee rek saa su ne eh, lu ñu woote ci tem ah, ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci ñooñu rek la daal di dalal ah, ci plateau bi ngir rek ñu daal di waxtaan ak ñoom gis nañu nag ni ngeen apprécier li nga xam mooy premier numéro bi waaye tam ci li leen neex rek ñuy dox tax na tey suñu plateau ñu daal ci dalal ki nga xam ne mooy eh, oustaz Cheikh Mbaye Mbodj nekk ci eh, fi nga xam ne moom mooy sàmm jikko yi oustaz ziar nañ la di jégal bu baax ci tardement bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay seetaan aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani irahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum mbokki Dakar Buzz yëpp di leen nuyu bu baax di leen nuyu soxna si bu baax a baax eh, di nuyu mbokki yi ma bokkal plateau bi Euh, di nuyu seen euh, mbokk yi nga xam ne internautes yi nekk ci ci àdduna bi yëpp. Mm-hmm. ñu ngi nuyu ñëpp ci turu ànd sàmm jikko yi. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf jàmm Abdoulaye Sow ah, bokkoon nga ci ànd sàmm jikko yi ca ba muy door waaye daagat nga ciy génn xam naa di ci dellu si di ngaa ngi yëngu ci wàllum politique waaye itam di yëngu ah, ci li nga xam ne dafay xeex wàllum émigration ah, clandestine yow ñu daal lay bàyyi nga nuyoo ak ñi seetaan. salaamaaleykum wa rahmatulah euh, rabbi sahli sadri wa yassir li wax waxlul uqdatan min lisaani yasfaw qawli salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu internet yi ñuy seetaan di nuyu plateau macha allah bu am solo bi. d' accord jërëjëf ñu lay dalal jàmm Cheikh Cissé tey moom dañu ko dalal ndax moom xam nañu du ustaatu dara waaye foog ñu koy dalal ci waxtaan yu mel nii bu ko defee moom it muy waxalaatam Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu waa Dakar Buzz ak ñu leen di seetaan yëpp. di nuyu Maulana Alhaji Cheikh Omar radiyallahu anhu di nuyu Seyda Khady di ñaan yàlla njéggal ak yërmande ci kawam. Mhm. di nuyu Fadilatu Imam Cheikh ak Alhaji Malick Cissé ñaan ñu yàgg fi lool. di nuyu monsieur Jebel Seck di nuyu suma nawle yi ma bokkal plateau bi. Mhm. Euh, Cheikh businessman la Cheikh. boroom xam-xam la cheikh kilifa la waaye cheikh du dara moom li ngoone wax <laughs> moom moo du dara waaye man dara la waaye li nga ñaan ci njéggalu gi moom xam naa <laughs> dina baax foog ngay jéggalu ndax li nga nekkee yàlla baal la ko uh, Fadel borom Dakar Buzz Social ñu ngi lay nuyu yow it di rafetlu sa plat ak yow ci plateau bi jërëjëf ngoone maa ngi leen di fay di nuyu ñi bokkal plateau bi di sant yàlla julli ci bi di sant sama ñaari waajur di sant Serigne Touba sunu yaakaar di ñaan lu ñu fi wax rek yàlla na dëppook loo xam ne dinañ ci am ngërëmal yàlla mm-hmm. Euh, njëriñ génn ci. Mhm. kenn ku ne mën cee taataan jël ci li nga xam ne moom mooy njariñ te yàlla musul na ci ndog-ndog ñu dugg ceeg baa génn ceeg siin di gërëm nag ki ma soloon li ba jànj li nga xam ne tey kenn ku ne nga ma koy laaj muy Kassé création. Mhm. nekk fee ca centre commercial Pikine ginnaaw raay numéro téléphone am. Ah, numéro téléphone am nekk 726 728 34 68. muy xale boo xam ne yaakaar naa ne bu lay ñëwal sax du la xool. du jël mesure da xool rek daal koy lekk ndax daal lekk centimètre. ndeysaan bu la xoolee rek xam na mesure. <laughs> macha allah création nekk ca Pikine gi. may gërëm bu baax euh, euh, Rems euh, coiffure moom it nekk fii ci Nord Foire lu jëm ci coiffure ak maquillage rëpp bu ñu leen contacter incha allah li ñu ci bëgg nañu ko am comme ni ma ko waxee woon léegi rek wàllum góor jigéen oustaz gis nañu ko ñu ne am na fépp nag phénomène la waaye dafa egg si ci Sénégal. Sénégal te ndaw ñi ñoo ciy gën a dugg ñu gis ngeen def ab kuréel duppee ko ànd sàmm jikko yi ngir rafetal rek li nga xam ne moom mooy jikko yi ak jëfin yi nga xam ne mu ngi ci nit yi waaye xeexum góor jigéen dañ leen gis ngeen taxaw au devant de la scène keroog gis nañu rassemblement bu am solo bi ngeen xam ne def ngeen ko euh, ci place de l'Obélisque ñu leen ci félicité ci liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, yéen a koy def waaye nag gaa yi wax nañu da ngeen di politique ndax loolee dëgg la alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm mboolem sénégalais yi ci comme ni nga ko waxee rassemblement bi ñu def euh, yàggul dara te sénégalais yëpp wuy si euh, wane seen mécontentement ci li nga xam ne moom lañ leen woo moom lañ leen woowoon euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax nag vraiment parce que woote te te te joxoo nit ñi dara lu leen di tax a ñëw ñu ñëwal la ñëw bu toll noonu yombul kon ñu ngi gërëm ñëpp di mm-hmm. gërëm aussi ñi nga xam ne yéen a fa nekkoon mm-hmm. di di ko couvrir Euh, mbir mi parce que am na sax ku ma fa interpellé di wax ni dee leen faral dee leen gërëm bu baax a baax a baax euh, ñi nga xam ne ñooy couvrir événement yu mel nii mooy presse bi te bañ a xaaj ak seet rek te bañ a kii ak kii voilà voilà voilà ma interpellé wax ma ko mais gis naa vraiment gis naa aussi euh, engouement bi ak liggéey bi même affaire bi mu jeexee ba pare ñëpp dañ fa des di jël ay image di jël ay tournées di expliquer vraiment mm-hmm. neexoon na sant nañ yàlla bu baax gërëm nañ leen quoi waaye dafa fekk mu nekk xeex boo xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk xeex la boo xam ne xeexu pas-pas la damay faral di wax ne baada aoudu billahi min ashaitan rajim suñu borom bi tabaaraka taala dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum yéen ñi nga xam ne yéen a gëm alquran mu ne topp leen yàlla ngeen roy ci yonent bi ak ñi nga xam ne top tamit ñi nga xam ne ñoo yor mbir yi ci yéen ñi yor ci yéen mooy ñi nga xam ne ñooy nekk ci nguur gi tey mhm. mooy ñi nga xam ne boo soxlaa kayitu juddu fa nga jëm boo soxlaa acte de naissance boo soxlaa leneen boo soxlaa carte boo soxlaa nangam ñi yor suñuy mbir si yéen mun def leen daf na ngeen topp leen waaye daf ci teg ne fa in tanaza'tum fi shay'in fa rudduhu ila allahi wa su ngeen réeroo ci benn mbir nag na ngeen ko delloo ci yàlla ak yonantam bi suñu borom bi tabaaraka taala dogal nag question ngóor jigéen ñu am ci ak réeroo suñu diggante ak ñoom mhm. réeroo bi mooy ñoom dañ ko gisee ni góor jigéen la nit ki da ngay am choix nekk ko su la neexee euh, ñu dindi ko ci nañ ko dugale woon ci cadre euh, nañ ko dugale woon ci cadre tawat dañ fa lañ ko dëkkoon dugal waaye ñu jékki-jékki jëlee ko fa ni léegi ndekete kon affaire bi dootul tawat choix la ñu créel ko nag ay porox ndoll yoo xam ne dañ koy dugal ci àdduna bi yëpp pour réew yi nag man koo nangu nag parce que comme que jëlee nañ ko ci tawat bu ñu leen bëggee réinsérer société bi il faut ñu teg ay porox ndoll yoo xam ne fa la ñu société fa la koy mën a dugale loolu moo indi li ngay dégg ñu koy wax agenda bi nga xam ne moom la ñu teg. pour mooy agenda LGBT bi ñu teg. pour mën réew mi wala nit ñi adapté li nga xam ne mooy combat boobu. d'accord mooy réeróo bi. te ngóor jigéen euh, yaakaar naa ne ñi nga xam ne euh, ñooy ay julit wala sax ñu dul ay julit bépp diine bu nekk ci àdduna bi rek. Mhm. amul benn diine bu mës a bu mën a accepté ngóor jigéen. loolu moo indi. tey situation bii ñu toll bi mu demee nag euh, yàlla dogal bi ñu créé mouvement bi nga xam ne mooy ànd sàmm jikko yi mhm. Euh, mu nekk suñu premier combat nag bi nga xam ne ci lañu njëkk a sóobu mm-hmm. euh, defoon nañ sax benn journée bu mel noonu yaakaar naa fële ci mosquée inachevée ci xeex mbon gi mm-hmm. parce que ñun loolu ma ne ko objectif bi rek xeex mbon journée xeex mbon la njëkk def fële ci mosquée inachevée ñu defaat nag lii bi ñu ci jubloo nag ba xam ne affaire mu gën mu ngi gën a ampleur te affaire bi nationale la lu concerné Sénégal yëpp la mm-hmm. ñu jóg nag def ay démarches dem ci kilifa yi dem ci 45 départements yi nekk Sénégal yëpp Euh, rencontré kilifa yi nekk Sénégal yëpp kilifa diine yi kilifa aada yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp euh, ñu rencontré leen expliqué leen li xew ci réew mi ak fi fi lii jëm loolu moo indi woon ñu joxoon ñu ndigal ci ñu def lu mel ni euh, taxaw seetlu bi njëkkoon def le 23 mais bële passé bi ñu ko pareewoo ci loolu nag ñu gis ne nag kon xeex bi mën nañ ko gën a yéegal nag mooy yéegal ko mooy jaarale ko nag fi ñu ko war a jaarale borom bi tagal ñu ne nañu def nag kon léegi pétition yi jéem a demaat ci kilifa yi wax leen ne dañu bëgg a jaaral ci benn état bu xeex bi ci lañu yóbboo état bi xeex bi nag ci pétition euh, wax ne dañ koy yóbbu nag léegi au niveau de l'assemblée pour ñu criminaliser ko mm-hmm. yàlla dogal bi ñu doxee ci loolu di ci dox di ci dox di ci dox di ci dox ba agsi ci war ko criminaliser bi ñu demee ba yóbbu document bi Euh, gis ngeen li ci xew. mooy mhm, rejeté bi li ci xew mooy rejet bi nga xam ne moom la ko moom la moom la bureau assemblée nationale rejeté parce que mhm. eggul sax ci ci ci plénière bi donc incha allah kon loolu mooy nag mooy Abdallah Sow maa ngi wax léegi ne da nga bokkoon te ji ci kuréel boobu di ànd sàmm jikko lu la fa génne. waaw parce que comme ni nga ko waxee rek euh, ànd sàmm jikko yaakaar na kuréel la boo xam ni pas-pas daf ko daf ko laal mhm. parce que yàlla dafa dogal ñun ñi nekk ay jullit am éducation islamique euh, jànge fi ñu war a jàngee. ñu am ay valeur dëkk Sénégal bokk ko ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñu diine ñun ñëpp ñuy ñaawlu maanaam lépp loo xam dafa jëm ci wàllu góor jigéen ak lu ko làmbo lépp lépp loo xam ne lépp ñaawteef ñun dañ koy ñaawlu euh, lu tax ñu génn ci ànd sàmm jikko yi c'est parce que dafa démarré pas-pas te pas-pas dafa pas-pas dafa doy waar mmh. pas-pas nit ki jullit bi boo ñëwee ci ci ci ci ñi moom ni ko lii kat dafa xaraam mhm. nañu ànd xeex ko mhm. wareefam rek mooy mu ñëw ànd xeex ko ak yow mais boo demee ba ci biir gis ni vraiment yow daawa bi ñu defoon ci yow ah, ñëw taxaw wax ak yow ci yàlla ak yërënt bi kese kese kese tax mhm. ñu ni ñi ni ñu ni ñu ni dañuy ànd xeex loo xam ne tey jii mooy homosexualité nga ànd ci ak ñoom di xeex di dem ba ci biir gis leneen loo xam ne ça veut dire que politique daf ci rax. daf ci rax xam naa loolu oustaz na ci dellu si waat ci rax et que nekkul loo xam ne tamit. mais mais politique bi nan la ci raxee ci ban fànn dañu ànd ak ay politiciens wala dafa am financement yu ñu yooyu. exactement parce que boo xoolee ànd sàmm jikko yi. Mhm. bu fekkoon dañu ñëw rek ñu ne dañuy xeex par rapport ak xeex xeex góor jigéen ku ci nekk mën na ci ñëw dugg. que ça soit au côté du pouvoir. ak ñi nekk ci opposition bi. ndax xeex xeex la. exact ndax xeex la parce que pas-pas su boobaa pas-pas moom moo la ciy dugal mhm. mais boo demee ba nga xam ci biir politique daf ci dugg mhm. su kat da naan damay arrêté teewul li naxarlu ma koy naxarlu wala li xeex ma koy xeex mais su demee ba politique divergence dugg kon ça veut dire que ah, ñoom ci seen biir ñoom ci seen biir ànd sàmm jikko yi man euh, ba ci seen euh, manifestation bi passé dimanche man maa ngi woon place de l'Obélisque mhm. mais euh, dem naa déglu dég déglu déglu déglu nekk déglu population Sénégal ba nga xam ñoom ñoo fa nekk souvent ñi fa mhm. ci ban ci lan la ñuy lan lan la ñuy lan la ñuy prôné souvent lan la ñuy lan ngay dégg ñu koy wax et mhm. ak tamit discours yi fa kilifa yi ji yëkkati. Mhm. Euh, vraiment da ngay xam ne li c'est purement politique. yéene ba taxoon ñi koy def. Mhm. ak yéene bi taxoon sénégalais yi ànd ak ñoom dëgg dëgg dëgg di xeexam. Mhm. vraiment dañu dañu dañu dañu tourner le dos mën naan dama naan sax dañu tourner le dos. Mhm. yi nga xam dañoo dañu amoon confiance ñoom que lii dañuy xeex. mais boo xoolee dëgg dëgg ñoom xeexuñu li mais régime la ñuy xeex. régime la ñuy xeex exactement dinañu si waat ci loolu. alors euh, Cheikh li jëm ci wàllum xeex goo jigéen ci Sénégal ak euh, kuréel yi takku taxaw dina fi dina fi jóg ban jàngat nga am ci loolu. man jàngat bi ma ci am bu dee ay jullit leen am naa ci suma jàngati bopp bu dee ñu dul jullit la ñoo koy xeex ngir dulu am valeur am naa ci suma jàngatu bopp mm-hmm. bu dee sénégalais yépp a dajaloo nga xam ne doonatul diine doonatul xeet waaye sénégalais ñoo dajaloo ne bugguñ lii ci réew mi mm-hmm. am naa ci jàngat bu fekkee ne ñu dul jullit ñoo taxaw di ko xeex ñooñu valeur lañuy xeex mais teguwul ci diine mm-hmm. te doomu aadama balaa yàlla di ko jox diine daf ko joxoon valeur jox ko ay teranga bu fekkee ne nag euh, sénégalais yi ñoo koy xeex ça veut dire que waa réew mi bugguñ fi lii su boobaa dafay yomb mhm. ndaxte WhatsApp dina dox Sénégal waaye boo demee du Dubai amu fa lu mooy nga jënd VPN mhm. ñoo moom seen réew mhm. sénégalais sañoon nen ne ñun bugguñ fi ku lekk ñam bi sañ neen bugguñ fi jigéen ak jigéen bugguñ fi góor jigéen euh, su fekkee ne nag ay jullit ñoo dajaloo di ko xeex ngir ne yàlla bëggut ko ñoo ñu su fekkee duma leen adressé ay caaxaankat leen dama leen di adressé dañoo tëb li ëpp solo di xeex lu ñàkk solo. Mm-hmm. ci naka. ci naka mooy jullit yu daje ñu ne Sénégal quatre-vingt-quatorze pour cent jullit leen. Mm-hmm. xeex bi war njëkk mooy fexe ñu àttewoo alquran mu doon réewu charia bu dee ay jullit leen. Mm-hmm. waaye loolu den koo tëb. ba pare juróom-ñaari bàkkaar yi gën a bon góor jigéen bokku ci. muy ban ak ban ak ban. bi ci njëkk mooy bokkaale yàlla. Mhm. mooy bakkaar bi gën a bon. Mhm. ñaareelu bàkkaar bi mooy tuumaal jigéen buy sëy. Mhm. jigéen bu am jëkkër. nga dafa waaw ñetteel ba mooy nga dugg ci xeexi xare ba pare daw. ñeenteel ba mooy lekk riba. juróomeel ba mooy lekk alalu jirim. juróom benneel ba mooy rey nit. juróom ñaareel ba mooy eh, njabar sixr ni ma ko teglante du nii la teglante waaye juróom-ñaar yi mooy bàkkaar yi gën a bon. te góor jigéen bokku ci. góor jigéen nekku ci. Mhm. léegi ñoom tëb neen lii yëpp tëb neen bokkaale yàlla tëb tuumaal jigéen buy sëy mhm. tëb rey jullit tëb. Euh, dugg ci xeere xare daw tëb lekk alalu jirim mhm. tëb njabar ne dañuy xeex góor jigéen lan mooy bëgg-bëgg bi ndax góor jigéen ya bon na man doonuma ko bugguma koo doon xaw ma ku ko doon aw ma mbokk bu ko doon ñaanuma yàlla mu ne fi mhm. pour mu leer mhm. waaye su ma jugee di xeex bon mhm. damay def ni mag ñëpp defoon ñoom dañoo njëkk a baax dañoo judd rek jàngi alxuraan ah ñu koy xeex baaxuñu maa ngi ñëw dañoo judd rek jàng jàng ko fexe firi ko jëfee ko te mu sell woo ay nit ci loolu nit ki mooy dem ba siix lu ñàkk julli mooy dem ba siix lu ñàkk woor mooy dem ba seex lu góor jigéen ba du ko xam ba di ko tudd moom xamul sax góor jigéen ba xam kan la ba koy xeex léegi nag bu fekkee ne ànd sàmm jëkkee dañoo dajalee ñu ne turu lislaam la ñuy xeexal dañoo balu ëpp solo loolu mooy niñ waree kilifa yi pétition yu ñu am mënoon nañu wax ne ay jullit leen waruñoo attewoo laïcité neen attewoo chariatu islamiya ndax ñu xam ne ay jullit leen xeex boobu den ko échappé ñaareel ba tegu ci munoon nañoo njëkkee bàkkaar yi ni mu teglanto lu bon moom dafay bon ba xëy di bon bu ci àdduna yëpp dajale woon mhm. baaxul dafa mhm. bon mhm. waaye munumaa nangu man Cheikh Ahmed yàlla wax ci alquran bàkkaar yi mu bañ yépp yonantu jàngale ko moytu ko musu koo def yi gën a am solo gën a bon nga tëb yooyu yëpp di ngànk benn di ci wej yi di ci mbel mbeli di wër di wax rek ne yow lii ngay xeex man dëgg dëgg neex yàlla li ma xam ci lislaam man gawma loolu Fadel sa point de vue par rapport ak euh, dégg nga dañu jot a wax ci xeexum góor jigéen bi ñu ci bari nee nañu nag euh, dëkk baa ngi bëgg a yàqu ndax lu ñu ko bañ a wax bañ a wax yëf yi mu ngi fii ci suñu réew. Ngoné di rafetlu xam-xam yi fi génn yëpp kenn ku ne ñu nangul la li ci jot a wax waaye loolu tudd tur bi rek sax dafa ëpp man bëgguma sax di ko tudd tur bi. Mm-hmm. man mm-hmm. ko tuddee. lu kenn xamul. Mm-hmm. parce que loolu moom dafa bëgguma sax tudd sama làmmiñ. te li koy gën a indi mi ci biir société bi c'est-à-dire nit da nekk euh, nit ci koñ mu tàmbalee ko euh, nga koy bay bayle tey bari na ñu doon lool ñoo xam ne tey population bi mbaa seen biir koñ ñu la ci gën a intégré ba nu am fitu nekk ci mhm. la preuve bin fi amee cas bu mel noonu tëngéej fookul xawma moom la xawma moom mhm. mais yor na ay jikko yoo xam ne tey la koñ ba wax ca moom mhm. parce que du ma wax ma wóorul. waaw kàddu yoo xam ne yaa ngi ko jëlee ca koñ ba. comportement xale bi. Mhm. kon comportement lu jara seet la. ngoone ana góor. Mhm. ak rocc say tuñ moo njëkk a jaadu a jaadu. Mhm. man nit woon ne ma Fadel Dakar ba dama ma booleeg yow. ma ne ko lu ma booleeg yow mu bëgg émission. ma ne ko émission mu ne luy rocci mu ne ma li ngay diw si tuñ dans deux heures temps mu rocceeku. ma ne ko maag yow mënunoo liggéey. man du ma du ma liggéey yow. waaw mu ne ma enregistré naa la samay lii demal WhatsApp bi ma demee WhatsApp ba xool comportement ku kooku mu na ko comparer jigéen. d'accord benn muy lu lu loolu laa ko njëkk meree. Mhm. ma bloqué ko ne ko bul ma woowati parce que bugguma sax xamante ak mhm. eh, bi ci des mooy que ni euh, li ñuy wax ànd defar jikko yi. sàmm jikko mhm. ñu ngi ci voie bu baax. dëgg la voie yi war a xeex bari na parce que li imam wax ci ne loolu lislaam dagganal ci ba ñaawal ci bàkkaar yi bon bari na waaye pour man fi sama xam-xam toll man man gisuma lu gën xam nag dafa xaw a gàtt bariwul xam nga nag bariwul waaw mais gisuma man ci sama xam jàngu ma nag mais li ma njort amut lu gën a ñaaw yàlla bind la def lay góor nga bëgg a yor comportement wu jigéen pour man fa la mooy mooy ndeyu ñaawteef yi man ni dama xalaatee parce que benn weddi nga sunu borom mi la sàkk xeeb nga li nga doon góor ni mu neexee suñu mhm. borom bind la ne la da ngaa war a doon kilifa. Mhm. am njaboot. Mhm. yow nga ne déedéet ni ma yàlla def neexu ma. damay mel ñeneen noo xam ne neexul yàlla neexul nit ñi. kooku rey ko sax wa dagan na tiib ko rendi ko. waxuma ay bañ ko fa jëlee demee rendi ko. tey bu fekk état tey waroon na tey bu ñu jàppee ñooñu. rendi leen ku rendi dit ku rendi ñooñu. état ñoo jox la fu ne nii koo ci gis sax nga xam ne loolu la wala ci koñ ba loolu la yow soo ko dóoree contrairement yow yaay am problème. c'est parce que bu amee yenn yenn yenn engage yenn doole yi mhm. nit ñee leen yenn pouvoir yi ci ci ci nit ñee leen ko may ñu ci bari jigéen ñi ñoo leen ko may ndax danga nga koy gis ci xew yi ay xew yu mag xew yoo xam ne ay millions lañ fay joxe ñoom ñooy jokkalante ñoom ñooy toog ñoom ñooy def ay macro ñoom ñooy def lu ne te bu pourtant nit ñi xam nañu ñi ay góor jigéen lañ dañuy continuer di collaborer ak ñoom ngoone man xew am na suñu kër nit ñëw fa ni sama yaay wax na ko sama yaay lu yàgg da ma neex da ngaa civilisé bis ba la yàlla mayee xew sa doom booy xewal damay ñëw man xaw ma. Mhm. bi xew bi amee ñuy takk sama rak bon ngoon gi nit ñi di ñëw comme yi nit ñi def ma gis ko mu dikk. Mhm. ak comportement ma ne waa kii kan la ku may mhm. daa ñëw ci xew bi. <laughs> ma ne ko non kii kon xew bi tey day day yam mais kii du ko may benn accès mu dugg ci biir kër gi. ma yan ko lu ko àdduna yanut. ba mu mujj takk ay dëbësam dem. ñibbi mais ñëpp ñu def noonu malheureusement dangaa mi rab ak woyu nga ak lu ne wax na ma ko seen genre wax yooyu rek ma ne ko d'accord mais yow maag yow mun noo bokk sa koñ bi waxuma kër gi mhm. cest à nit ñi ñoo leen influencé ban dem ba tollu niveau boo xam ne mhm. pour jële ko fi dafay nekk lu métti la koo ci laal waa koñ bi jóg mhm. léegi la rek am léegi la ñu am jénn cër yi mais bu njëkk daanu dëkk sax nangoo ñëw banlieue ndax banlieue loolu su fa kenn mësaan a feeñ ci banlieue moo xam ne di nga rëcc léegi nag da ngay dégg sax benn ko ñu ne diw génn naa àdduna est-ce que du woon moom. Mm-hmm. moom laag du moom wóoruma waaye ku dem ba bindul ba nga nekk góor. nga changé comportement ban naan moom nga ak du moom rek man moom nga d' lu leer la alors oustaz euh, Abdallah soo dafa am lu mu wax léegi lu jëm rek ci seen kuréel googule fa la nekkoon wax naa ko léegi waaye itam jóge na fa ndax ci gis-gisam wax na ne euh, li leen tax a jóg politique daf ko lal yow fa nga ne foog naa ne li ñu naan tungale du teew ñu nataal foog ne di nga ci mën a àddu ndax da ngeen dugg ci wàllum politique ndax ñu bari nee nañu élection législative yi sax ñàkku ne da ngeen def liste ngir dem ci fi nga xam ne moom mooy ca euh, pencum réew mi alhamdulilah maa ngi gërëmaat mbokk yi bu baax eh, di gërëm Abdallah ak imam du imam ci intervention yi rafet yi mm-hmm. xam naa ah, fi may commencé mooy ci Abdallah mm-hmm. xam naa ni bëggoon naa xam kañ la jógee kañ la génn ci ànd sàmm jikko yi. nga génn ci ànd sàmm jikko yi. seen dernière manifestation. ci dernière manifestation nga génn bi bu mujj bi nga génn. voilà euh, xam nga man je suis au cœur de ànd sàmm jikko yi. Mhm. moo tax nga tey dama ko bëgg a dàq rek. Mhm. te yaakaar naa ni euh, su jëf ñëwee rek wax mën naa dàqu. Mhm. dañuy taxé ànd sàmm jikko yi de politique war nañoo wax ne ànd sàmm jikko yi dafa musa wax ne kaay leen voteel diw wala bu leen voteel diw. loolu war nañ ko wax ba xam wante mosuma ko dégg. Babacar Babacar Mbuub wax ko fen coordinateur national. loolu benn la beneen bis mooy. su fekkee élection yi passé nga xam ni mooy législative yi passé ni municipal yi élection locale yi euh, locale mhm. euh, ñu bëri ñu ngi ciy taxé ànd sàmm jikko yi de politique am na ci benn vidéo boo xam ne gis naa ko ñu dugal ko te vidéo boobu man maa ngi ci bi mu demee seeti Ousmane Sonko mhm. man maa ngi woon ci jotaay boobu mhm. photo ba maa ngi ci waa ji def benn vidéo wax ne waa ànd sàmm jikko yi gis nga dañuy politique nangam dang ah, la ngeen fa doon ci élection yi tamit non bi ñu demee seeti Ousmane Sonko boobu ba ñu yóbbu pétition yi la. comme ni ñu ko defee comme ni ñu ko defee ci ak élection yi. yeneen député yi rek. parce que ñun dañoo wër tous les mhm. dem ci ñoom wër tous kilifa xalif généraux cosaan yeeg dama ba bois ba xam nga kooku doo bàyyi ku nekk fii. Mhm. loolu mun fa yóbbuwoon. Mhm. ba mu demee discours ba lañ fa wax fekke naa ko. yàlla dogal ñu photo wu ñu génnee am ku jël vidéo ba daal ne voilà ànd jàmm jikko yi gis ngeen li ma wax mooy li Abdoulaye di te foto boobu man maa nga ca. Mhm. alhamdulilah rabbil alamin local yii paase. Mhm. man fee mu dëkk ci Malika. ki ma doon jàppale benn bokk yaakaar la nekk. te bu mu nit ñi seetaan maa ko maa ko campagnal. Mhm. ko jox scoop bu doy waar ñi may seetaan xam nañ ko maa ko campagnal maa wàcc terrain bi. maa xeex maa wax maa discours ba mu gagné. moom moom it ba moo bi ngeen dégg Malick mhm. Benno Bokk Yaakaar maa ko campagnal man wala bokk naa si ñi ko te maa ngi fii di wax ci turu ànd sàmm jikko yi mhm. kon ànd sàmm jikko day politique fee la far ak fële moo ko dàq mhm. mooy sama jëf ji ma beneen bi mooy li imaam wax ci cadre li nu jël comme combat li nu jël comme xeex imaam yàlla kenn mënu ko féete fépp te li yàqu ci jamono bi wax nga ko léegi buntu boo laal rek am na lu fa yàqu waaye yaakaar naa li nga lim fii yëpp ni góor jigéen tënk na ko te yi lim fii nii yëpp amu ci benn bu bu yonent bi wax ni man wajatumuhu yaamalu amala mi luutin faqtulul faila wal maf'ul bi amu ci benn yonent bi dafa wax ne képp ku ngeen fekk muy def jëfi yonent yàlla jëfu ñooñ yonent yàlla luut mhm. rayal ki koy def ak kiñ koy def mhm. xanaa jëf yi nga wax fii ci mooy kabairal ci xaj na bu mel noonu yi nga wax fii ni mooy kabairal ism tamit amu ci benn boo xam ne moo sabab ñu jël suuf yëkkati ba ci kaw dëpp ko wala mhm. waxoon ni jaal naa saafilaha wamtarna alayhim hijaratan mamduda ñu jël suuf si yëkkati ko ba ci kaw dëpp ko ba pare samp ci ay piquet ay xeer mu jamu ca yëfi ngóor jigéen moo ko waraloon kon bàkkaar yi mu wax fii yëpp donte yu rëy la mooy kabaa'irul ism d'accord na waaye eggul foofu kon ngóor jigéen moo egg foofu ba pare ñu gis ne bàkkaar la boo xam ne nekkul ñun ñoo ko ñun ñoo ko ñun ñoo koy yóbbu fi mu nekk déedéet. du ko fa dafa am ñu ñu bëgg a ni yóbbu leen ko fii ba pare di indi aw doxalin wu nu bëgg ñu jaar se pour ñu egg fa ñooñu nag lu ñu bëgg def barrage suñu diggante ak ñoom parce que bu nekkee sénégalais kese kese kese yaakaar naa ne du gaaw pour mu nangu wax nga ko léegi même ñi koy défendre. laa wax de ñi koy défendre à bras ouverts na buutuwuñu dañ koy défendre. wallahi kenn bëgg ko cee nekk kenn bëggul sa doom nekk ko kenn bëggul sa soxna nekk ko mais dañ koy défendre parce que dañ ci am intérêt loolu intérêt yi àdduna la. mooy li mu wax rek wa ma mataaul xayaatu dunia illa xuruur loolu moo leen ci yóbbu xaj na waaye kenn bëggu ko nekk kon su fekkee dañu jóg song benn komba nekk ci imaam gis ne ñii kat ñu ngi ci lii waaye baaxul lu jar a xeex la mhm. waaye am na leneen loo xam ne war nañ ko mën a xeex lii gën te gën mooy Abdallah jublu ci xeex loola mhm. ndax yàlla kenn mënu ko féete mhm. xeexal loola ñun suñu paree fi fekk la foofu parce que lépp ci jikko yi la bokk lépp ci pas-pas la bokk lépp ci defar rek la bokk waaye nag nu ñoo nag warandoo ñaari mbaam nekk ci lii jëm ci fañ ci jëm daj ci liñ ci daj commencé ko fañ ko commencé bu fiñ toll di ne ko fi ñukk di jàppaat leneen jàppandoo ñaari jaar soo moytuwul en voulant trop gagner tu risques de tout perdre effectivement loolu la ñuy ragal donc foog ngeen jeexal moo ñu bëgg a jàpp ci xeex bi incha allahu taala ba mu daj waaye ku xam ànd sam jóg xam nu muy doxee xam ni wallahi xeex bii ak tàmbali rek. Mhm. waaye fa nu jëm passé na fi. Mhm. fi nu jëm ak sénégalais mooy fexe ba yi nga wax ni yëpp mu jóge fee ndax boo gisee porox ndoll yi nu wax ni fa la gaa yi di jaar di dugal yu mel ni bokk na ci porox ndoll yooyu fa la nu jaaroon ba légaliser cagatu jox ko carte sañoo ko def dara. Mhm. fa la nu jaaroon ba légaliser sàngara muy jaay ci bitig yi léegi maa ngi gis ci télé bi x yu mel noonu carte nag xbet moom bu ngeen ci duggee yaakaar naa ñu ànd ak yéen ñu bari na leen xaw a bàyyi yooyu yëpp mais yooyu ay mbir la yoo xam ne war nañ ci wax mhm. war nañ ko xeex mu jóge ci réew mi parce que réew mu jullit la du dëgg même bu dul dara mu jullit la loolu ay xeex la yuy ñëw ci kanam incha allahu taala. waaye comme dañu song benn ci ronu jëm euh, beneen bi ma tëj ci mhm. ma ma daaneel. ayca li ma bëggoon a daaneel rek mooy wax imam yooyu nañ ci seen xel dal. Mhm. ndax ànd sama jikko yi day commencé. c'est nag fi ñu commencé moo am doole ndax boo nee da ngay xeex ak Nations Unies. Mhm. da ngay xeex ak ku jël président Macky Sall ku jël ak nangam yaakaar naa ni il faut que nag coow li bëri moo waral ngay dégg ñu naan persona non grata France ak ba ci lim ay xalifa généraux. Mhm. parce que xeex bi moo toll noonu. te itam li tax yu mel noonu ngeen di gis riposte yooyu ngeen di gis rek mooy wane ni ñoom fii leen affaire bi toll. ñun bu ñu fa tollee waru fa mën a am tànk mhm. ala kulli xaal maa ngi tudd bu baax ah, macha allah oustaz alors euh, man li ma bëggoon nga leexoo ko rek oustaz wax na léegi lu jëm ci wàllum politique yi mhm. yow politique googu moo tax nga génn ci seen euh, kuréel googu léegi fan nga mën a teg wala ban leeral nga mën a andi ka ne ànd sàmm jikko yi dafa yëngu ci wàllum politique waa exactement mooy comme boo ko dégluwaatee léegi-léegi mhm. moom par rapport nee na le fait que liy dindi ci ñoom politique mooy que moom jàppale benn candidat boo xam ne benn bokk yaakaar la loolu moom si personnel. d'accord mais ñoom li ñuy def kenn mënu ko tudd lu dul politique. ci naka. Euh, parce que man dama nekkoon seen biir. Mhm. daan nga dem ay réunion bu ñu wootee yooyu yëpp. ci lu bëree bëree bëree. waaw kon kañ na leer pour pour leeral rek. man mhm. man ci sama bopp. Sénégal nit ku nekk am na ko foofeete. ñii mhm. dañu nekk ay murit. ñii nekk ay tijaan ñii nekk ay xaalis man jamaat. loolu conviction personnelle la man jamaat Iba Rahman laa bokk. jamaat Iba Rahman laa bokk fa laa juddoo fa laa fa macha allah. Mm-hmm. ñun suñu kër comme sa waay li mu doon wax léegi. ci anecdote boobu mu doon wax seen kër ci ngénte bu fa xewoon ak genre affaire ñun suñu kër. Mm-hmm. man kër ga ma juddoo yaroo fa. Mm. ñu def ñu def ci man éducation islamique bu amee xew wala man mooy tudde sama doom wala keneen ak keneen mm. musique du fa jóg. dëgg la. kon ça veut dire kon yaa ñoom xam saa yéen a yam kon ñun mhm. am nañu ay valeurs yoo xam ne ñu ngi koy incarné mhm. sama mi sama mbokk sama waa koñ yi may seetaan xam nañu baax li may wax mais soo en général dañoo des ibaad yi dañuy xaw a <laughs> wàccee sikkim sol yu cëkk yow nga ñëw <laughs> waaw moderniser ko xam nga lii moom dafa dafa rafet rek quoi ma xam nga waaw macha allah waa taala ibaadu fashion yi la comme ñoom euh, mais boo xoolee euh, Fatima ak ñoo boo xoolee euh, seen discours yi nga xam te ji avant élection locale yi nga xam ne tey ji dañ ko ñoom dañu jël seen seen seen seen seen seen seen seen seen wax yëpp. Mhm. vaccé ko sur le président Macky Sall. président Macky Sall moo fi mhm. moom moo leen di moom may doole. Mhm. président Macky Sall daaneel parce am temps de parole. yaa jëlal lépp Euh, sànq bi ngay wax comme dama la déglu moom il fallait que ñu am patience <laughs> rek mi ngay déglu mais nga leeral ci li ma la politique gi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def pour nit ñi xam parce que ñi leen koy jiñ tamit man dama jàpp ni ñoom ci coalition lañu bokk ñoom muy yeewu askan mhm. ci parti politique lañu bokk muy Pastef d'accord exactement ñoom ñu ci mhm. ëpp quatre-vingt-dix pour cent ci ñoom mhm. yeewu askan lañu bokk quatre-vingt-dix pour cent ci ñoom ci Pastef lañu bokk man je suis authentique réew mi la bokk. di liggéey en coalition avec le président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar. d'accord kon yow it da nga wax ci mais bi ma demee ba xam ni lii nii lii nii yàlla dong dong dong dong taxatul. Mhm. maanaam nekkatul combat islamique kese kese boo xam ne ak ay valeur politique daf ci dugu mais dama ni damay taxaw parce que man nag am naa appartenance politique am naa fu ma féete. Mhm. vraiment. mais li may xeex mën naa ko kon ne xeex est-ce que du appartenance politique bi nga xam ne fa nga bokk. Mhm. ak ñoom fi ñu bokk ñaar yooyu moo mënul dem moo tax nga retiré wu. c'est-à-dire xam nga moo tax euh, gis nga dañuy politique ñu ñoom gis nga boo def politique. Mhm. da ngay ñëw engagé wu nga ni da ngay def politique nit ñi xam ni da ngay politique. Mhm. mais imam boo xam ni day politique. ba pare bëgg a jaare ci discours l'islam loolu kooku am na benn àtte sax ci l'islam ban ban imam la si ñoom. cest par rapport rek ma wax la ko ci ak sama benn imam boo xam ne dama koo sopp trop mhm. di déglu ay waxtaanam ci lu bari muy Oustaz Alioune mhm. su ma yeewoo fajar su ma julee pare souvent moom lay déglu mhm. mais discours am keroog bi mu jël bi mu tëni place de l'Obélisque ku ko ku mu neex mën nga koo seetaanaat bi mu defee bi mu nuyoo ba pare li mu njëkk wax mooy législative yi mu ngi ñëw Mm-hmm. dem leen préparer seen carte d'identité yi. pour ñu jàng dem leen préparer seen seen carte électeur yi. sañu ko non sañ na sañ na ko wax mais c'est pas le lieu nekkul woon lieu boobu. xam nga dañ ne ànd sàmm jikko yi. Mm-hmm. période la période ba lan moo ñu yóbboon place de l'Obélisque. Mm-hmm. dañ dañuy dem pour xeex nguur jigéen. Mm-hmm. dañuy dem crip xeex pour criminaliser ngóor ji neen la ñuy def ba criminaliser ngóor jigéen mais a am xam nga mm-hmm. bien sûr maa nga fa woon xam nga mm-hmm. dem fa moom mënta weesu jël fa ay photo ba ma maxtaar ba fa nekk ma toog waxtaan ma pare ma toog waxtaan ak moom réunion yi laa mu waxoon ma dégg xam nga yaa ngi ci woon réunion yi ñu doon préparé ni ñoom dañuy politique nit ñi xam ni ñoom dañuy politique ñu taxaw taxawaayu politicien su boobaa ñoom dina am ñoo xam dina nekk ñoom en face. Mhm. bu fekkee nag ñoom dañoo wër ci kilifa diine yi dem Tiwaawan. dem Tuuba boobu yaa ngi ci boobu yaa ngi ci gën a ko dama lay expliqué waaw dama moo moo moo dégg ah. déglu ma xam nga xam nga boo leen demee Tiwaawan mhm. dem Tuuba dem Kaolack kilifa yi mhm. wax leen loo xam ni yéen fas yéen la leen yéen li ngeen ngeen di def ak li ngeen leen di wax ak li ngeen bëgg a def c'est diamétralement opposé parce que li ngeen de mee ngeen demee bugguma la discours discours yi ma mhm. mais di ah, ko dagg kam fekkee li mu terminer après nga wax nest pas mhm. parce que c'est très grave c'est très grave et que mhm. Sénégal dafa soxla actuellement fi ñu toll nii dëkk bi dafa soxla stabilité dëkk yi ñu wër actuellement mu ngi tàkk mhm. tey jii ñëpp gis nañ tey information yi nga xam ne moo ngi daw mhm. kon ñun suñu Sénégal gi nga xam ne moom la ñu am ah, amuñu feneen fu ñu jëm stabilité lañ fi soxla ak dal mhm. bañ fee yee benn fitna gis nga le discours de Imam Dicko euh, bi nga xam ne tey jii moom moo doon am Mali Mali dafa répercuté wu par rapport ak li am Mali loolu xaw ma ñu ngi koy ñu ngi koy mais tey jii ñu ci bëree bëri ci maliens yi nga xam ne tey jii ñu bëri ñu ngi doon prôné loolu war ñu koy encouragé tey jii ñu ngi regretté imaam fi ñu koy xaar mooy ci dem nañu wax ak kilifa diine yi. Mhm. nee nañu nee nañu ñoom kilifa diine yi jox nañ leen fa weer. mais ñoom waxuñu ni kilifa diine yi ñoom taxawaayu politicien lañ taxaw. Mhm. waxuñu ne woon dañuy ñëw jéem a wañ loxo Macky Sall mais le président Macky Sall lu mu wax. Mhm. fii ak maa ngi fi fii ak maa ngi fii ak maa ngi Sénégal fii ak man maa ngi nekk président Sénégal ñoom li nga xam ne ji moom mooy góor jigéen kenn du ko fi légaliser. mais Abdallah est-ce que parole lu président Macky ñoom dañ ko mën a tenir en considération parce que waxoon na du def troisième mandat ba tey leerul waxoon na du fal frère am fal na frère am est-ce que du xaatim mooy tax tey jii ñi mën a ànd ak moom ci li mu wax. waaw xam nga problème troisième mandat euh, loolu moom pour man dafa àtte boppam.

ñoom ñu dugal ko ñoom ñu rejeté ko. Mhm. mais nañ ko dugalaat man je suis pour man je suis pour man je suis pour. criminalisation ñoom ñu criminaliser ko amul problème. Mhm. mais boo déggaatee ñoom ci seen discours nee nañu ñoom criminaliser ko sax taxul ñoom li ñu bëgg ñu am ko. Mhm. kon ñoom lan lañu bëgg. non exactement. non ku wax loolu non nee ñoom ñoom. kenn mais xam ñoo yow yaa ngi woon ci ànd sàmm jikko yi xam nga ñëpp Babacar boo nee diw moo waxoon loolu ñu génne discours bi tëkk Babacar Babacar keroog lan la wax lan même buñ ko criminalisé même buñ ko criminalisé ñoom euh, consulté nañu ñoo xam ni dañoo def droit nee nañu taxul seen bëgg-bëgg li ngeen am li ngeen li ngeen li ngeen li ngeen di ut ngeen am ko mhm. c'est-à-dire non c'est-à-dire man li ma bëgg rek mooy lenn li ma bëgg mhm. et encore ma ci invité tous les jeunes sénégalais que ñu yeew ñu bañ ñoo manipuler gis nga nit ki boo xeex ci diine dafa bari dafa bari manipulation instant bi dañuy manipuler jeunes yi par rapport ak seen pas-pas xam nga tey ji man damay fàttali ko bi may nekk daara man personnellement di jàng alxuraan mhm. amoon nañu benn oustaz boo xam daf ñu sonaloon parce que période boobu noonu day ñëw ni la gëm nga yàlla nga ni waaw nga ni gëm nga ni saa salaam nga ni mbëkkal miir bi nga ni mbëkk bi parce que tu tawxiid bi nga xam ne moom moo nekk ci yow pas-pas bi nga xam moom moo nekk ci yow moom moo lay moom moo lay moom moo lay moom moo lay moom moo lay moom moo lay moom moo c'est-à-dire loolu nag man dama ci dama ciy invité le président Macky ñu jël seeni responsabilité ci naka parce que ay kilifa bu ñuy demee bay manipuler benn population ci loo xam ne leer na leen ni lii nii ñuy xeex taxul ñoom exact loolu nekkul seen combat politique mais nekk seen combat. Mhm. loolu nag wax dëgg yàlla war na am kilifa yi jiite réew mi war nañu am beneen taxawaay ak ñoom. bu fekkee nag ñoom dañoo taxaw ni ñoom ànd sàmm jikko yi. Mhm. loolu dong dong dong dong moom moo leen tax a jóg xanaa beneen kuréel judduwaat bu dul ànd sàmm jikko yi. Mhm. ñoom ñu dem kerewaat ñu tas ànd jàmm jikko yi demaat kerewaat beneen kuréel boo xam ne loolu dong moom moo tax ñu jóg su boobaa nag wax dëgg yàlla bis bu ñuy def. Euh, combat bu ñu mënti mëne mhm. jullitu Sénégal yëpp ak ñu dul jullit ci Sénégal yëpp pour ay valeur kese kese kese mhm. bu soobee yàlla ñoom duñ ci weet te ñun ñëpp ci combat yooyu euh, lañu sax di nga tontuwaat léegi ma may euh, Cheikh euh, Cissé sa point de ci kuréel gu mel ni boo xam ne ànd sàmm jikko yi la woote di xeex intérêt population bi ndax yoon may na ko mu dugg ci wàllum politique li may njëkk a leeralal suma mbokk mi mooy mhm. Sénégal du réewu jullit Sénégal réew la mu jullit ñi dëkkee ak chrétiens ak ñu gëmul dara réewum jullit mooy réew muy àttewoo islaam réew mu ko doonut doo réewum jullit jullit yi ñu ngi woon Rome mais doonutoon réewu jullit jullit yi ñu ngi woon Abasa doonutoon réewum jullit jullit yaa ngi fépp ci àdduna te fépp ci àdduna du réewu jullit kon Sénégal pour sénégalais yi la senegal réewum lay laïcité la. Mhm. mais du réewum lislaam ay jullit yu baax nag dëkkee neen ko ba yàlla jox leen mboolem teraanga yu muy joxe lu dul nubuwa amul benn yonantu bu xam ne sénégalais nga waaye façon wàllu bu ne nag gëm naa ne sénégalais la. Mhm. Euh, su dul lu ma xamit mu tegu ci rafet njort. beneen bi mooy man damay am problème ci num waxee ne góor jigéen. moo waral yàlla tourné suuf bàkkaar yi ma tudd benn bu ci nekk tax na yàlla wàcce yonantu bi njabar bare la yàlla yónni yonent yàlla Muusa jox ko yet mu jommal leen ci njabar ba firaw na bi muccee ci tataam gi ngir allahuma bismika bi mu ci def muy basmalatu yàlla dafa ko joteloo ak Moussa ba mu génnee ko ñu ne géej ku ca dee taxe Firawna fa la dee mu dencal ñun niwam ba tey ku dem xool muy miracle kon bépp bàkkaar ci yooyu yàlla toroxal na ci xeet yàlla toroxal na ci nit yóbbu na ci nit safara waaye wàccee na ci yonantu yonantu bi gën a foor bokkale yàlla tax ñu indi ko ndax ñetti téeméeri yàlla ak nangam lañu ñu bàyyi woon ci kaaba gi mu indi saydul wujud ngir mu won leen ne laa ilaha illa li moo doon mission léegi nag bàkkaar bu rëy ba tax yàlla wàccee yonantu dara gënu ko rëy ndax teraanga ci yàlla ak ci àddina ci yonantu la yam ci ku xam ak ku xamul ci ku ñam ak ku ñamul donc su loolu amee ci biir jullit ñi am ñu seen gëm yàlla dem bay métti ngir ñaawte fii am ndax yow yonantu bi nga gëm moo la jàngal jàngal ma man ne ku gis lu la métti faj ko boo ko mënee wut nangam defal nangam ba ci naqarlu ko sa xol. kon su ngeen jógee dajaloo tudd ànd sàmm jikko yi ça veut dire am na lu sooxee ci liggéey Maodo am na lu sooxe ci liggéey sëñ Touba ndax man mënumaa nangu ku ne taalibe sëñ Touba nga ngemb di dóor sa moroomi jullit ne jërëjëf sëñ Touba moo tax ma daan dama ko bañ. dama ko bañal taalibe Baay bañal ko taalibe Maodo. pàkkar ñi ba ci kaw ne ku topp bàyyi ñu yëkkati sa loxo ci kaw ci biir boîte de nuit man dama ko bañ ndax bu doon mission bàyyi sëñ Aliou sa dàq fecc ñëpp wala dàq bëree ñëpp waa ji dafa ñëw ci alaaji Omar Ndaw xutbu bu mag bi di ñaanlu na ko mbër laa dama bëgg daan bëkk néeg bu rocceeku ndànk na ko jegeel sëñ bi te wàññi tubaab bi mu ne ko damay ñaanlu mbër laa dama bëgg daan alaaji Omar na ko cëm jugal fi jugal fi fa nga yëg ne damay fo wala damay folu kooku bëree na téeméeri combat zéro victoire yëpp la daan no yu loolu yàgg na. Mhm. mbëri mbapat yooyu di nekk di dem ñaan. Mhm. gis nga ni ko sëñ bi bañee. mais doo seetaan combat te gërëmuñ sëriñ. donc kon yéen da ngeen nangu ak man ak sénégalais yi ne sëriñ su baax bi fi nekkoon jàngal ñu lislaam jëmbat ko suñ xool yi seen liggéey sooke na. li sooke mooy am na ñuy mbubboo seen tur bokk ci ñoom sax seen deret ah. mhm. bokk ci seen lépp. te li yàlla wax ak li yonantu wax ñoom xamuñ ko wala buñ ko xamee jëfewuñ ko. donc jikko yi di yàqu ci boor bu ne. jikko yàqu na ci gis neen imaam yuy def ñaawteef. te balaa muy am Sénégal yonantoo ko wax mu ne ñett yi yàq diine afatu diini salaasun faqihun fajirun wa imaamun jaa'irun wa mujtahidun jaahilun kon yonantu moom nangu woon na lii may wax man ba wax ñu ko ne lii yàq diine mooy ku jàng fiq ba xam ko te kàccoo imaam bu jeng farlu ci diina lool te xamoo ci dara. Mhm. donc kon nangu ngeen ne imaam yi am na ay ñaawteef yu ñuy def ba mu siw bañ koy wax ci télé. Mhm. noonu la ñëwee ci ustaas yi noonu la amee ci président de la république bii ak beneen ak beneen ba ca des ndax nit leen ñooy def bàkkaar yi. Mhm. noonu la amee ci professeur bi jàngale noonu la amee ci avocat yi noonu la amee ci ministre yi. noonu la amee bu yàggul mairie Médina adjoint mairie gis nañ ko mu tëddee jigéen. ci kaw bassin si nag jugé nañ ko ngay bàyyi gisul yooyu waaw li ma bëgg wax dama ne. Mm-hmm. maanaam jëluma mbon gi puus koy imaam. ay nit rek nga li ma bëgg a wax mooy jëluma mbon gi puus koy imaam ak ustaas. Mm-hmm. dama ko généraliser ci mboolem poste bu Sénégal nekk. Mm-hmm. ndax amu benn problème ak euh, professeur ministre wala imaam. doomi imaam la. am na ay rakk yoo xam ne imaam lañu. donc awma problème ak poste bi. waaye yow doo imaam ci jukko bu man duma imaam. Mhm. duma ustaas teewaluma diine. Mhm. kenn laa ci jullit ñi bëgg lu baax di ci jéem am ay bàkkaar di ci jégalu yàlla. Mhm. waaye li ma ñor dëgg-dëgg mooy ñoom bi ñu àndee dajaloo pour sàmm jikko yi seen combat biñ bi ma leen gën a xamee man xam nga nag nit xamoo ko. waaye di nga xam lenn ci moom. nit déggoo ko waaye di nga dégg lenn ci moom donc man duma mun a nangu. ay jullit yu daje di xeex ci turu lislaam seen njiit bi ñu teg seen kanam mooy yonantu sallallahu alayhi wa sallam seen téere bu ñuy référé woo mooy alquranul karim mm-hmm. ak bépp mag boo xam ne jàngale nga sunna bu leer seen bopp mooy seen royuwaay mm-hmm. ku dul ñii ñoom teguñ la fen te man teguma la fen wax dëgg yàlla ndax diine amul askan mm-hmm. loolu nag su ma demee ba di ko xeex man damay tàmbalee fi alquran tàmbaleek man donc su ma tàmbalee foofu euh, dafay mel ni li Serigne Sall waxoon jox leen waa ji président dafa ñëw na ko dama am projet kaso yu bari ma soxla àll bi ngir defar ay kaso Serigne Sall na ko déedéet man gisewu ma noonu li ma gis mooy jox leen ma ndaw ñi ma jàngal leen yar leen ba duñu am jikkoy kuy dem kaso. Mhm. donc projet yooyu man nangu naa gëm naa néew ma moom Serigne rek li mu def moo baax comme li nga wax yàlla kenn féetewu ko fépp. Mhm. yow it yaa ngi nekku ci woon. man maa ngi ci xeex boo xam ne Baye Niass nekku ci woon ku ne yàlla moo la bind da ngay jéem mbaax donc problème bi ma am mooy ànd dajaloo pour sàmm jikko yi cuqati góor jigéen jox ko benn importance boo xam ne am na conséquence ci société bi. ok. da ngeen tàmbali woon xeex bi. ok léegi ñi yéen a ngi. ànd tey ko bu baax imaam. non moo yéen a ngi yéen a ngi dajaloo di xeex sàmm jikko yi. Mhm. góor jigéen dab ngeen jox ko importance boo xam ne. jigéen yi góor jigéen yi ñoo ko jox importance ak ñi ko bëgg a laayal. mais yéen nag. non yéen ñim dajal yim jaral ngeen dajaloo marché bu mag bi la vingt jox leen ko importance pour xeex ko. ma si. moom foofu foofu laay waxee dañuy faral di wax ne li mu jaral addu kalpe bi. Mhm. bu ko jaralee borom kalpe bi kalpe bi du dem. d' accord loolu moo tax ñu léegi mbootaayu àdduna bi. Nations Unies African Union ak ña ca des ñiñ tuumaal yëpp góor jigéen ak ñi ci ne. Mhm. bi mu leen jaralee pour imposer ñu ko. ginnaaw bi ñu imposé sàngara bañ nangu ko. Mhm. imposé ñu cagatu nangu ko. Mhm. imposé ñu toog ci tele di wax ci lislaam te xamoo ci dara ñu nangu ko. Mhm. imposé ñu tey même géer bi nga xam ne sax li mu waroon a séq ak géwélam mooy teral ko géwél bi waxal ko lu baax dafay taxaw di fipp di fëgg danam ne man faramareen la donc yii yëpp buñ ko nangoo ci suñ société ak suñ diine léegi nag amuñ ci problème mais dineen fipp yuuxu ba bu góor jigéen dugg man lii moom suma problème la because dama gëm ne góor jigéen du lu baax. du lu yàlla bëgg waaye am na lu ko gën a bon. d'accord te su may xeex lu bon nag ci la ko gën a bon laay gën a laay dem niki. Mhm. niki ma ñëw rek euh, ñëw ci li ma dab nii. jox ko benn importance boo xam ne tey importance bi ñu ko jox marché bi. Mhm. ku xamul daf naan waa lan moo xew ñu ne góor jigéen yaa. am na kuy wax ne góor jigéen boo ci duggee da am xaalis den koy dégg ñun ñëpp. Mhm. góor jigéen yaay parce que ku am xaalis fii Sénégal ñett leen lay tuumaa franc-maçon nga góor jigéen nga wala ci lobby nga bokk. ku fi tekki boo nekkee musicien bu mag sax ñu tuumaal la ñett yi boo nekkee président ñu tuumaal la ko donc ñun dem neen ba nasaxal suñu diine ne gëm yàlla gu sell topp yàlla mënul laa may dara. li la mën a may mooy nga bokk ci lobby yi wala nga nekk franc-maçon wala nga nekk góor jigéen loolu leen ñu gëmal ci façon bi ñu koy waxee léegi nag ñun. am na ñu bëri ñu dégg ne ku nekk góor jigéen am xaalis mais fan nga koy amee nan nga koy amee ñun xamuñ ko. Mhm. donc su ngeen ko joxee importance boobu maanaam euh, en terme de communication. te boo taxawoon nan bu kenn saagandee bu kenn saagandee bu kenn saagandee yaa ngi yëgal nit ñi ne saagandee am na. Mhm. donc nit ñi dinañ xam ban façon saaga am ak bana amut. moo tax suñuy publicité yenn saay dañuy ñëw ak lu agressif. Mhm. ngir nga jël lu positif li. islam balaa indi jaasi. dafa indi neexle dafa indi maslaa dafa indi muñ dafa indi nangam ba dëgër ab mu indi jaase ba pare tëralaat jaase yonentu ne jihaat bu mag bi des na mooy nafs jihaatu nafs mais l'islam cosaanam du jaase donc fi ma bëgg a waxee rek mooy ñoom bi ñu imposé seen réflexion moo ko rëyal léegi dem na ba mel ni góor jigéen moo xew senegal te pourtant non xewu fi ñaareel ba tam man du te l'islam man daf ma mayut ma xam ne kii yee góor jigéen te waxul ma ko ndax bi daf ne bu ngeen gisee ku koy def. Mhm. ak kuñ koy def. mooy ku juutoo kuñ juutal. Mhm. lii lii la mhm. mais man musuma gis ku juutal ak kuñ juutal. donc man mënumaa nangu ne kii góor jigéen la. su ma màndutee ci lislaam d' na cheikh bi. Ah, ah, imaam li mu wax li mu wax loo loo ci wax ci màndute lislaam boobu ñu bari dañuy wax ne euh, bu fekkee ne da nga doo xam lu nit ki doon doo xam ne kii day jaay boppam doo xam ne kii góor jigéen nag dafa mel ni yéen da ngeen di lox mbóot mm. li nga xam moom mooy vie privée jàmbur yi. ah déedéet déedéet loolu moom loolu moom waxi sénégalais rek la parce que sénégalais sax dañuy confondre lan mooy maandu. Mhm. ñu bëri xamuñu maandu maandu ñoom jàpp nañu ne. Mhm. mooy nga gis lu bon ni nii gëm mu dem déedéet. te kii mhm. wax na ko imaam wax na ko léegi nee na yonent bi dafa wax ne ku gis lu bon. man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. wa in lam yastati' fa bi yadihi fa fa bi fa bi lisaanihi wa in lam yastati' fa bi donc ñetti yi lañ ci wax képp ku gis lu bon na nga ko xeex ci sa loxo. soo ko mënul sa làmmiñ soo ko mënul nga def ko sa xol. nga naqarlu kon maandu foofu mënul nekk ala kulli xaal. d'accord maandu bi xam naa ne boobu mën nañ ci dugaat ci beneen côté mais damay njëkk a ñëw ci imam. Mm. xam naa daal euh, li mu bëgg a wax ne moom lañ fi ji wooy dem ci combat góor jigéen yi. Mm-hmm. xaj na moom da ngeen privilégié tab daal am na lu njëkkoon avant góor jigéen comme ni mu ko waxee. xeetu mbon gi bari na. voilà yéen ngeen tëb rek ne góor jigéen. waaw léegi bu fekkoon da nga fekk ci misaal. ci misaal nga dugg ci tool nga dugg sa tool nga gis coté buy tàkk nga waroon xëy si pour bay ñax maa nga fa ni boy nga xëy fekk fuy tàkk da koy fay objectif moo nekkoon nga ñëw bay si tool bi dindi si ñax mi du dëgg mais da ñëw fekk fuy takk da fay tàkk tàkk taal bi ba pare door a tala buddat ñax mi foofu lañ toll mhm. c'est-à-dire boo xam ne daf ñu dab nekk loo xam ne ñi koy doxal moom dafa lim léegi. Mhm. ni dañoo seetaan wala daf ñu fee fekk ñu daganal fi cagatu jox leen ay carte daf ñu fee fekk. Mhm. ñu daganal fi ngóor jigéen daf ñu fee fekk ñu daganal fi euh, euh, euh, carte xaalis. Mhm. yooyu yëpp waaye nag lii nag dañuy bañ lañu daloon foofa dal ñu fa. loolu la maanaam ñu dem ba yegg foo xam ne day nekk tëggum dënd ak semmiñ dootuñu ci man dara. parce que président day day dem ci day dem fenn wax ne. Sénégal am na ay góor jigéen amuñu problème ak ak góor jigéen yi Sénégal amuñu problème ak góor jigéen yi ndaw si ne ko est-ce que sañ ngeen sañ nañu la sañ nañoo gën di manifester mu ne ils sont donc kon moom côté constitution côté gouvernement amuñu problème loolu pare lañ ci ñoom kon li des mooy fexe ba population bi ñoŋ nangu ko foofu la des foofu foofu loolu rek moo des mhm. peuple bi nangu rek moo des mais constitution amatuñu ci problème mhm. loolu moo indi kii di président Obama pour wal na ni ñoom seen droit yooyu ñu laaj dañ leen ko jox partout ci àdduna bi ak wala fu ëpp ci àdduna bi ñu soxla ko ci réew yu mel ni Sénégal ak yeneen réew yu mel yu ni mel moo waral ngay gis président bu mel ni Obama ak déplacement am ak li muy déplacé lépp ci àdduna bi mu ñëw ba Sénégal dugg discours dugg tudd ko wax ci ba Macky Sall tontu ko fi moo waral itam nga déggaat président premier ministre euh, fii euh, dëkk bi Canada mhm. jóge fa ñëw ba fii di wax lu mel noonu pour wan leen ampleur bi ñu ko bi ñu ko jox ñoom. parce que Sénégal mënul nekk benn réew mu ndaw endetté nekk ci ay problème ñu koy lebal xaalis ak muy am ay problème ñu koy taxawoo yooyu. ba pare li ñuy bañ ci droit internationaux yi Sénégal du ko du ko ratifié ko ba pare nangu ko doxal. Mhm. donc foofu la problème bi nekk. donc kon foofu la ñu amee problème ñun ak imam mooy da ngeen a war a def lii. Mhm. il faut que nit ñi bàyyi da ngeen a def il y a chaque chaque chose il y a priorité. Mhm. yow léeg-léeg nga dugg sa kër sax léeg nga dugg sa kër sax nga fekk ne. tey dépense bi dafa laaj yokk ñun bi ñu ñëwee léegi nan lañ fi boisson. Mhm. c'était pas prévu du dëgg ñaari kaas yooyu mënoon naa dem feneen xaj na xaar suba wala ginnaaw suba. c'était pas prévu ah. am na yoo ni am na yoo xam daf lay dab. Mhm. mais bu la ko bi ñu ñëwee ci saa da nga ne joxal sama gan yi mhm. dafa dugg ci réew mi am fu mu jëm te fi mu jëm nit ñi ràññee nañ ko comprendre nañu ko ñu ne nañ ko dog loolu rek moo jubluwaay bi beneen bi mooy ci cadre politique. te tamit balaa may ñëw si cadre politique ma wax tuuti ci imam gis nga imam li tax question bi nekk priorité par rapport ak yeneen bakkaar yi est-ce que xam nga bu ñu génnee cadre diine comme ni nga ko waxee léegi senegal du réewu diine mhm. moo tax tontu wuñu ci diine pays laïque la wala wala yaasu billah yal na ci yàlla musal mhm. loolu mooy indi coow li fii yëpp rek malheureusement pour ñun ndax bu fekkonte ne tey daf dañoo dañoo ne nañ ku góor ku def góor jigéen nañ ko rey li ko diine wax su boobaa benn sénégalais ab jullit ni ñun mooy toog ni ñu fu ngeen ko teg ndax réew mi àttewul diine moo tax ñu jël constitution yooyu ngay wax noonu ñu bëgg ko durcir fekkoon fi dara ñu ne nañ ko dolli bu ko defee mu gën a dëgër beneen bi bu ñu génnee cadre diine ñu teg logique rek imam bu ñu ne woon bis ni ki tey la ñuy commencé ne sénégalais yi wala adduna bi yëpp nañ nekk ay góor jigéen tey ñu commencé ko tey. subhanallah exemple. Mhm. je donne exemple. Mhm. xam nga kenn ñëpp kenn xamul adduna bi kenn lay tukki. Mhm. mais bu ñu ne woon tey la ñuy tey la tey jii nii nii nii la ñuy commencé adduna bi yëpp nekk ay góor jigéen ki mujjee juddu tey man nga daal di natt expérience de vie fii ak cent wala cent cinquante ans man nga wax ni kon adduna day tukki. Mhm. mën nañu daal di prévenir léegi léegi léegi ñu ne àdduna mën na tukki dans cent wala cent cinquante ans parce que nit ki espérance de vie mëntul nekk cent cinquante ans. du dëgg. mais fi mu nekk nii kenn xamul ko ne adduna tukki pour moi la kon ak nguur jigéen dafa bokk ci li nga xam ne euh, crime contre l' existence de l'humanité la moom nguur jigéen parce que benn dama koy faral di wax ne damay góor jigéen moo dama koy xaar quoi am na fu ma koy xaar maa ngi koy xaar ci bu màggatee bu demee ba mujjanteelam nu muy mel waaw bu demee ba màgget rek ba xam ne mënatul dara mu soxla cëslaay ku ko gunge wala ku ko ànd ak moom foofu la problème bi nekk. maa ngi xaar góor jigéen ci. te scientifiquement ñu wax ne am na ay feebar yoo xam ne. ah si si ci mel ne cancer ko prostate euh, bii nga gis ni sax ñoom ñoo koy gën a mhm. ñoo ko gën a proposé cancer de l'utérus ñoom ñoo ko fi gën a am. Mhm. loolu mooy lool mooy loolu loolu loolu la scientifique yi avéré. Mhm. donc beneen bi boo koy xaar aussi boo ko xaaree ci bu lemoon tey ba tawat nekk ci appartement moom kese amul sax koo xam ne man na koo jox benn pompe pour mu kii ko pour mën a jóg wér. nga xaar góor jigéen bu la waxee bu la waxee damay adopté xale wala damay adopté doom lànkal de. Mm-hmm. lu tax muy adopté moom ki muy adopté dafa am nday am moom kay bu ko mënee na jur. Mm-hmm. n'est-ce pas na jur. ah mais góor nag oustaz malheureusement mënuñoo enfanté. kon kon adduna yàlla daf ko bind li kulli shay'in khalaqnahu zawjayn lépp yàlla daf ci bind góor ak jigéen. Mm-hmm. góor ak jigéen. su xool guddi gi sax guddi bi lampe bi pour mu tàkk phase neutre. donc lépp noonu lay doxee loolu mooy loolu mooy équilibre àdduna kon beneen affaire su ñëwee dafay nekk léegi contraire loola te dafay détruire àdduna bi. d'accord la mu waxoon ne zaharal fasadi fil barri wal bahri bi ma kasabat ay dinaas. Mhm. kon foofu lañ jëm imam. d'accord balaa ñu ñëw ci loolu Fadel euh, dégg nañu li ñu wax. comme ne ko Abdallah waxee ak oustaz ak euh, Cheikh du jëm ci wàllum góor jigéen euh, ñi ñi comme ni ñu ko waxee nee nañu Euh, dañ ci joxañ baaraamu tuuma président Macky Sall ci ay kàddoom wax na ne en tant que mi ngi ci bopp réew mi lu ni mel du fi am ndax yow loolu kàddu googu mu wax convaincre na la. Ngoone li koy li tax doon tax mu convaincre moom mooy mu signé ko. Mm-hmm. ci assemblée nationale. xam nga wax loi bi. day ànd ak jëf. parce que euh, ba doon da ko signé. Mm-hmm. suñu xel gën a dal. àndu ànd defar jikko yi. Mm-hmm. président Macky man damay wax ci fi ma toll mooy que ni su fekkoon nit mbir soo bañee benn mbir da ngay wane ni dama ko bañ à cent pour cent bugguma lii damay wane ni bugguma lii ba ñi ni jiiñ ñoom laam dunu ñoom doo leen may benn opportunité du ñëw bay def discours ba ko fiy tudd. mais ñun nag ñu koy jiiñ ñu bari dañoo nekk ay kilifa. du nuy kilifa am na it ñoo xam ne am nañu sax ay soxna. du nuy kilifa parce que kilifa mënta weesu sunu borom bind la def la góor. nga bëgg a soppi sa sa sa melokaan loolu doo kilifa. leneen li ma d'accordul ak sama xarit bi. Mhm. mosoo leen d'accord nag. mooy li mu ne du ma ko jiiñ nit. ngoone damaa wax sama njëlbeen wax ne leen yàlla bu la bindee ngay góor nga dem ban lay jaawale moom laam du moom rek man li ma jàpp yow moom nga. Mhm. man foofu la foofu laa tàmbalee man. Mhm. parce que jiiñu ko ñëpp. yow loolu foo ko teg. ci comportement yàlla day bind ñoo xam ne ñoom dañuy am ween. waaw déglu ma seen baat dafa jigéen ne mais dafa a koy mhm. nga d' ne am na nit ñu yàlla bind ñoo xam ne seen baat dafa jigéen seen doxin dafa jigéen. d' naa loolu mais seen bind la. mais itam di nga d' accord ni di nga d' ni nit. Mhm. li may kaas nit a koy def ci boppam. Mhm. d' naa loolu. nit bu bind nga nekk góor. dafa am comportement bu na góore. nga nekk góor. nga dem ca marché ba. Mhm. jënd ay produits pour xonkol say tuñ. Mhm. defoo yëfi góor benn. benn léegi comportement estime. Euh, bi ci euh, ne da may wut teen dem diwu góor da lay room nga xam ne kii dafa diw xeesal. Mhm. defoo yëfi góor. kooku mënu ma laa jàppee góor. dama xeesal moom du yëfi góor ak jigéen yëfi ko góor yàlla rek parce que jigéen lañ ko xamee. parce doo gis mukk tey ngoone bu la rombee xees di ne jaadu na jigéen la même donte xeesal baaxul di nga ne dafa xees. mais par rapport ak góor bi la romb tey xeetal lii yii ñuul mu am yii mhm. di cokkos cokkos mel ni mel cokkeer da ngay xam ni kii nekk du du góor man damay jàpp ne doo bu ne laa moom nga dama naan moom nga. Mhm. parce que tey ku la fekk nga toog du la ne moom nga ndax yoroo comportement bi. Mhm. te solo woo solo. solo jox ne boo ko summi dëkk bépp jàpp ci. <laughs> bi ci des nga gis un góor boor war a dem ba war a bokk ak rakkam bu jigéen batan bokk war na noo mën a bokk yére mhm. parce que ñoo yor même eau yi ñuy sol waaw chemise yi même chemise yi ay baat tombe mhm. boo ci boolee xonkoose tuñ xeesal bu nee laa moom nga du ma ko dàq ak i takki chaîne yu yu bare ki jaaro du ma ko dàq la tax nag nga xam nga ne jigéen jigéen lu ak góor jigéen du benn ba tey xam naa li ma la man ci jigéen man ci góor laa hmm? no yëpp a boot. waaw ba tey bokkul mais foog nga xam ne jigéen jigéen lu ñi xeexuñ jigéen jigéen lu le. ah ñi góor jigéen lañ non non non. ñi góor jigéen lañuy xeex mais ñoom agenda LGBT bi. lesbianisme ci la bokk ak yooyu LGBT la ñuy xeex. waaw mais lële du LGBT. xam nga ma fi may waxee rek ki fi may fi may fi ma jóg yëpp a bon yàlla nañu yàlla musal ci yëpp a bon mais mais ñii LGBT la ñuy xeex utee na ak utee na ak xam nga lii conséquence bi mm. mooy da ngay gis xale bu dëkk ci quartier génn moroomam génn àdduna ñu denc ko moom ñu génn naa duñ ko fi ko fi denc parce que mm. comportement yi mu yore na mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. duñ ko fi denc parce que comportement ba kooku yor ca quartier ba moo tax ñu ne kii duñ ko fi denc mais est bay bayal tamit xam ba pare nopp ceeg yooyu du andi gën a dana ko indi uh-huh. bi ci des dangaa civilisé dana ko indi dangaa rafet dana ko indi da ngaa bëgg lu baax dana ko indi da mën a sànc dana ko indi nit mën naa solo te du mel noonu. Mhm. nit mën naa jantal te du mel noonu mais góor bu dem ci marché jënd produit bu xonqal sa tuñ. ñu mhm, daal xonqal tuñ ñu mën a déranger jënd non dafa mën a xari jënd diw. Mhm. di diw. bomb romb romb la nga xam ne kii dafa xeesal. parce que góor yàlla di yàlla dafa aay. xam nga tax yàlla aay. Euh, li muy mën a baal sax jigéen fekk koo góor jigéen mën naa xeesal sax yaramam. doo ci gis gis ci toq toq ñuul ñuul. Mhm. mais góor bu day xeesal boo ko ne jàkkam ne day diw. non day fekk góor bu dee bu amul prix bu baax sa xeesal. même nga di gu yor xaalis. xeesal moom ça dépasse sa prix. non deru góor mhm. hmm? jigéen bokkul. di nga gis jigéen bu góor gu yor góor gu yor ay milliards. di xeesal boo ko ne jàkkam ne kii day diw. Mhm, day am trace. non diw baa baaxul rek. bu mu bu fekkee da koy naan du tax mu maase. xam nga ñiy xeesal am nañu diw pour yii kente am diw pour fii. mais li ma la bëgg a xam xamal. mooy gëma di yàlla bi nekk ci jigéen ba mu xeesal bu nekkee ci góor mën naa xeesal ñooyam at. d'accord naa loolu waaye mais xeesal jamono bii ñu nekk. déglu ma xaw ma at yi passé de bii. ku sa xaalis mat nga mel nam la neexee. kon góor ñu koy def xanaa seen xaalis matul. non dañoo matulewul. kon nañ ko bàyyi lan lañ ci jublu. ñoom ñi koy def. Mm. xanaa bu leen gisee laaj leen man moom gis nga ni ma. déedéet <laughs> man ñuulu ma dama yegg ba ci kuk waaw man maa la gën a ñuul kukk man man damaa ñuul kukk mais li ma la wax mooy que uh-huh. man loolu damaa xees mais pël la. non yow moom yow c'est normal yow yow yow mbokk Amadou la c'est yow yow yow. da nga xeet boo xoolee nit xanaa xamoon nit bu xeesee <laughs> mhm. ci yàqu karaw gi ngay xool xam ni kii dafa xees ah xoolal Lamine Lamine bu ne xam ne da nga xam ne boo ko ne jàkk xam dafa xees ji bi mhm. da nga xam dafa xees moom naaj bee ko lakk waaye bu xees la woon kii da koy xool xam ni kii diwul dafa xees wala mhm. xees na mais dafa dafa laal <laughs> na ah? laal parce que dolli na. dafa dolli xees dolli na dañ koy wax li fi. imaam lu yàlla wax nañu wax ci wàllum góor jigéen gi rek te bu yoon ñu ñu andiwaat beneen thème ndax boobu moom. non li may tonto li may wax ah. moom foofu mooy que ah lim ne ah. du ma ko tuumaal. may la nit du ñu koy tuumaal mooy tuumaal boppam. Mhm. parce que tey bu fekkee da yor war ko yor comportement bu góor. Mhm. yoroo lu nu la waxal yow la. dëgg la góor su jëndee lu xonqal ñoom di diw. Mhm, mhm. bu mu ko nee moom la bu ko weddi. d' accord alors wax ji am na solo oustaz. ay ca tontu ko ci kàddu gu ndaw balaa ñuy ñëw ci. leneen euh, politique bi mu ñuy tuumaal mhm. bi nag. Euh, euh, oustaz ñi leen koy tuumaal bari na. Ablaye. bismillah bu fekkee bokkoon nga ci ànd sàmm jikko te wax nga ko bokkoon na ci. moom de bi mu ci génn dafa yàggul parce que waaw waaye da génn na ci nag na manifestation bi la ci génn te dernière manifestation mhm. bi yaakaar naa ni dafa am lu ko jiitu mhm. yaakaar naa ni loo bañ bañ lëkk nga nangul ko guddi noppam mhm. bu fekkee bokk nga ci moo tax sànq may laaj ndax daan nga ñëw ci réunion yi fekkee nga réunion yi fekkee nga waxtaan yëpp bu fekkee fekkee nga réunion yi ñu doon def fekkee waxtaan yi ñu doon waxtaan xam nga ni y a rien de politique loolu da koy nangul rek kon discours ba nit ñi discours ko ci nit ñi discours ci penc ma mhm. Mhm. nga xam ne dañ fay jox ay kaddu nit ñoo xam ne sax xaj na doo leen gis ci ay réunion dañuy nekk ci yeneen i kuréel mhm. parce que ànd sàmm jikko yi bul fàtte ni dafa nekk nag ànd kuréel boo xam ne dafa engendré lu mat cent ay quelques kuréel yoo xam ne ñoo ngi ci biir ànd sàmm jikko yi donc ñooñu nag léeg-léeg nga jël si koo xam ne koy jox kaddu mu wax d'accord du dëgg ci ci situation yu mel noonu quoi mais bu fekkente ne da ne ñoon ci ànd sàmm jikko yi laa bokk ngay assister ay réunion di ñëw ci seen i jotaay baa xool na nga ni man réunion sàngam ñëw naa fa dégg ñuy wax ci wàllu politique mhm. jotaay sàngam fekkee naa ko ñu dégg ñuy wax ci wàllu politique mhm. wala nga ni diw dafa am ay ay ay ay ay doxalinu politique mhm. loolu moo gën nga bàyyi ba discours ba mag nga xam ne foofu ku nekk la ñuy jox kàddu mu wax kenn wax benn wax nga gis ne yow ka ñuy wax xaj na la ñuy wax naan naan naan naan naan euh, Euh, président Macky Sall moo nangam président Macky Sall moo nangam loolu looloo la neexul. nga mhm. génn ni ensemble dañuy politique. mais loolu man d'accord naa ku ne mhm. euh, xeex lu jëm ci euh, jikko yi. Mhm. muy politicien mu nekk ci opposition wala fu nekk ku ne war naa mën a ñëw intégré est-ce que tamit tamit yooyu. taxul ñuy loolu xam nga sawaay daf ko wax léegi. moom laa wax nii concerné wul la concerné. loolu li ñu la waaw sàmm jikko yi yuuxuwuñ ko de. xoolal preuve waaw ko doon ñoo ko yuuxu ñuy yuuxu ñun ñoo doon calmé. waaw ñun ñoo doon calmé. waaw ndax na modérateur bi nekkoon fa di calmé ñi. Mm. pour ñu noppi. bañ a bañ a bañ a tam lan moo ko dal. Mm-hmm. bàyyi ak nga jaawale góor ak jigéen moom it war neen ko seetaat suma xarit boobu <laughs> lu ko dal alors ci combat rek <laughs> xam combat bi diis léegi am la am la baal ma tuuti rek. bàyyi ko mu daaneel nga tënk loolu ñu jeexal ci boobu euh, Fadou. dama bëgg rek nit ñi xam ne ànd Sàmm Jikko Yi du mhm. parce que man ki ma jàpp ni mooy politique. mooy kii ñëw di wax ne voté leen diw. dëgg la kaay leen ci diw wala voté leen ma. man de li ma gëm mooy yéen ñi ci nekk <laughs> yéenay politiciens. waaw mais nit ñi ku ci mel ni yow. non jàppale nga ku nekk APR. Mm-hmm. non am na ci ay parce que sàmm jikko. non du ànd sàmm jikko politique ko taxaw mais gëm naa ne yéen ay politiciens ngeen. ñenn du ñun sax. Mm-hmm. c'est-à-dire quand tu dis ñenn dafa loo xam dama ko bëgg a rek parce dafa ñu dab xam nga dañu nekkoon ci élection locale bëgguma ci néew parce que loolu sax thème bi quoi. Mhm. ku nekk sañ nga waxtaanee sa kër la ñuy waxtaanee nga ñëw taxaw ci xool ki baax ci kër gi nga ànd ak moom. Mhm. Mhm. loolu parenthèse la woon rek. mais jëmmi ànd sàmm jikko ba mu leer. laa bëgg a wax ne. nekkul ci politique. loolu moom d'accord naa ci te te te li koy confirmer dafa bari. Abdoulaye su waxoon ne man damaa fekkee réunion sàngam ngeen wax ci waxi politique d'accord na. Mhm. Mhm. Abdallah fekkee ci mais ma ne président de la République benn. waaw mooy suñu président ñun ñëpp exactement Macky mën nañu wax ne projet bii bu stoppé moom la te loolu xam nga ci dara. Mhm. parce que projet bi eggul sax eggul sax assemblée national mhm. bureau assemblée la yam la yam mhm. neuf personnes ñoo ko bloqué. dëgg la. ci ndigalu kan neuf ngeen bon loo leen quoi non non pas bon bi non bon loowuñu leen de dañoo lim non bon leen tudd ngeen seen i tur ah si tudd ngeen seen i tur dañoo dañoo ñoom ñu judd ñu ay julit Abdallah am ay waajuri julit Abdallah ñëpp ñi leen xam mhm. xam ne ñi ay julit xaqal lañu mhm. li ngeen di xeex ñoom ñoo leen ko gën a bañ téeméeri junni yoon. Abdallah yéen ngeen diaboliser lu tax ñu bañ ko kii déedéet attention dafa bañ bañ ñu attention ci li ngay wax c'est important xam nga xam nga da nga wax léegi lu am solo. sàmm euh, may ko mu daaneel foofu. réunion interne yi nga xam ne ànd sàmm jikko yi mu ngi koy am. Mhm. lañ fay wax. Mhm. ak bu ñu ñëwee ci discours mhm. population Sénégal bi taxaw li ñuy wax c'est diamétralement opposé da nga a fekkee réunion ah nga la. non mës nga mës nga fekkee réunion. non benn yoon à Thiès. benn yoon à Thiès benn mhm. mhm. dama laa bëgg wax ni la non ànd sàmm jikko yi c'est partout yéen fu nekk dugg ngeen fa. Mhm. kilifa du kilifa du nekk dama lay wax leen. discours yi nga xam ne moom la ñuy jël. à l'interne discours yi nga xam ne moom la ñuy jël. Mhm. bu ñu demee ci kilifa diine yi toog ak ñoom. Mhm. pas-pas lañ leen di wax tawxiid lañ leen di wax lislaam lañ leen di wax. Mhm. kese politique du fa jug. mais bis bu ñu ñëwee dañuy def retournement de situation. non Abdoulaye non non non non du ma la bàyyi ngay eggale yii ngay wax nii te amul amul te te dugg. laisse-moi terminer laisse-moi terminer man li may wax non jullit nga da nga wax léegi da nga wax léegi lu am solo. li may wax c'est palpable li may wax c'est palpable. non c'est pas palpable de c'est pas palpable c'est pas palpable. Mm-hmm. du man kese maa ko. mais mais Abdallah Abdallah est-ce que. non da nga wax léegi da nga wax léegi lu am solo. pour ma wax la leneen da nga wax léegi ne da nga wax léegi ne imam xaaral li may laaj pouvoir au niveau du pouvoir ñi nga xam tey jii li ma bëgg laaj Abdallah déglu tuuti ñu ci bare bare bare li ngeen def ñoom la gën a métti ma ne nga déglu ci li lay ñoom la gën a métti Abdallah yaa ngi dégg Abdallah Sénégal fii à quatre vingt da huit pour cent waaw mais dañuy dégloon te kenn ku ci bëgg góor jigéen wala ku daganal góor jigéen Abdallah waaw mais non non defal na imam xaaral yaa ngi dégg. waaw mais ceux fekk loi. laaj dafa important parce que daf ko laaj te. dana mhm. euh, wax na ne da nga ñoom noonu parce que leen fan wala loolu. Mhm. léegi est-ce que demoo ba dañoo wax sa président mi nga àndal. muy mhm. président ko neexul nga ne naag xëpp. Euh, ci ci ci yëf yëpp man nag man nag yàlla dafa def leen. nan laay doxe mooy samihaana wa ataana man ci lépp lu jëm ci sama diine. lépp lu jëm ci sama diine luy laal sama pas-pas man sama diine moo ma moo ma gën a lépp. man sama diine mm. moo ma gënal lépp. Mm. kon daal li ngay wax fuleer nga ko teg li may wax fuleer laa ko teg. Mm-hmm. dama ne la man nit ki soo ñëwee ci man ni ma yàlla xaala xaala xaala rasulullah xaala taala. Mm-hmm. dama lay déglu mais bis bu ma demee ba xam ni yow mii yàlla ak yeneen bi ma doon wax. nekkatu fa leneen a fa nekk. su mm-hmm. boobaa nag wax dëgg yàlla. non dañ parce que loolu nag exemple la. ci sunu yéen ci ci ci ki nga xam ne moom la ñoroy loo. yéen bi sa asalaam bi nga xam ni moom moo gën ñëpp. moom la yàlla yónni. bu mësaan a wax dañ naan ko lii wax yu la wax wala du wax yu mhm. bu nee wax yu la ñu ni ko loolu dañ koy jëfe bu nee sama xalaati bopp la ñu ni ko loolu nag ku ci nekk war na cee mën a am sa gis a génn euh, xalaat léegi la par rapport loolu avant wax nii moom fu leer la ko teg nee na non non moom ay waxam la wax moom nee na fu leer la ko teg moom laa wax ma ne ah mooy comme ni ñuy def ñoom di di di di di changer c'est très facile c'est très facile xam nga xam nga xam man du ma sa adversaire non doo sama adversaire jamais yow sama imam nga. man du ma sa adversaire. <laughs> man sa taalibe laa man ñëwuma pour nekk sa adversaire. parce que parce que du adversité sax nag waa lépp yaakaar naa ñoo ko bokk. dama ñëw pour leeral. man je mhm. suis au cœur de And Samm Jikko Yi. te mhm. yaakaar naa ni da wax ni léegi jullit nga. Mhm. te jullit. bi ñu limee imaam doon na lim léegi bàkkaar yi ba tudd ci fen. ah. fen bi ko waxee yorante bi ni jullit ndax dinañ fen lu mu wax. moo dafa nekk jullit du fen. la am de. jullit du fen la wax. kon fii jàppal naa ne du ma fa toog fen Mm-hmm. am déet. Mm-hmm. naka man tamit incha allah kenn it waru fee fen keneen kon dama bëgg a leggali di keneen waru fee fen tamit incha allah keneen waru fee fen ànd sama jàpp naa ne bu fekkee benn réunion nga fekkee ba Thiès ba ca Thiès mm-hmm. mënoo cee wax lu ma xamul yaa nga fa woon déedéet. mënta wax ci réunion interne yi loo wax ci biir ànd sama jikko yi. Mhm. lu ma xamul ma. d'accord kon yaakaar naa ne bu fekkee nit ñi déglu boroomi xel lañ. Mhm. Mhm. sama wax ji la ñuy jàpp ko sa bàyyi ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñu jugé euh, comme ni ñu koy defee à fois bu def émission li ci biir nañu seeti askan wi ñoom it ñu wax euh, seen xalaat par rapport ak thème bi nga xam ne moom la ñu développé Fatima Zahra dem na seeti askan wi ñoom it wax nañu euh, lan rek mooy seen xalaat ci wàllum góor jigéen kon ñu seetaan ko dellusiwaat ci plateau bi Ibrahima ban gis-gis nga am ci góor jigéen ñi ni ñu bëree fii Sénégal. Euh, góor jigéen ñi man pour man affaire de phénomène la rek c'est-à-dire euh, population bi ñoo ko war a jëlal seen bopp en main quoi c'est-à-dire affaire de état wala affaire de population bi ñoo war a xoolaat seen comportement jël ko en main quoi c'est-à-dire affaire de jigéen euh, affaire de population bi ñoo ko war a gérer waaw c'est-à-dire ñoo war a seeni comportement jeunesse bi ñu nangoo liggéey xam nga bañ a bugg lu yomb comprendre nga lu la. xam nga fighting du seen live quoi mais li ngay gis nii yëpp phénomène bi ci nekk ne affaire bëgg lu yomb la rek dugg ci rek pour am ay xaalis pour lu tukki affaire yooyu la quoi man loolu laa gisee moom. affaire bëgg lu yomb moo tax ñu doon ay góor jigéen. c' vrai ñoo ciy dugg loolu moo tax ñu ciy dugg man mos na ma arrivé un jour ma nekk place euh, BCAO ak samay copains di di sangu quoi léegi ma xaw a grippe ma génn plage bi sol sama sort taxaw nii quoi léegi nu ma taxawee benn tubaab moom fekk euh, benn français mu fekk ma taxaw à côté. mu laaj ma nu mu tudd ma ne ko man Ibrahima laa tudd après man ma laaj ko nu mu tudd quoi mu wax ma turam léegi mu ne ma au fait moom dafa ñëw vacances Sénégal moo ngi logé à côté quoi centre aéré benn studio meublé chaque jour moo ngi fay journée trente mille ma ne ko ah bon mu ne waaw léegi après ñu wax ma ne ko c'est bien affaire après mu posé ma question quoi euh, ndax tu es marié ma ne ko non pas encore na marié wu ma ko léegi man tamit ma posé que la même question ma ne ko ndax tu es marié mu ne ma non non ma ne ko ah pourquoi dafa xaw a âgé quoi ma ne ko pourquoi mu xaw ma jaaxal quoi mu ne ma non c'est-à-dire si tu es marié tu es condamné quoi loolu la ma wax mu ne ko ah bon ma ne ko man moom je ne suis pas marié te am naa fiancé quoi. mu ne am nga fiancé ma ne ko waaw ma ne ko te diire nañ te moom laa ñaan yàlla tax quoi ñuy waxtaan nii ba ci yàgg rek mu ne ma est-ce que mun nañ dem appartement am quoi. billaay moo xamul loolu ma ne ko appartement ma ne ko non non wax dëgg yàlla mënu ma dem ma ne ko léegi bu ñu fa demee li ñuy def quoi rek mu jékki-jékki ren mooy si tu viens on peut faire l'amour ku mën a subhanallah ma ne ko yow. tey man na sama xel kii su ko attaqué fii mun na ma accuser genre quoi léegi mu négocier man xam nga rek maayee sama bopp xam naa ma ne ko non man du ma genre yooyu quoi ne ko man moom damay am envie nekk ak jigéen genre yooyu quoi mais mu proposé wax lu ne après mu ne ma si tu moo ngi takk ay baggu or yu bëri léegi mun ne ma si tu veux bu ñu demee ma may la or bu bëri may la xaalis quoi montant six cent mille affaires yooyu quoi ma ne ko non non merci ma ne ko non franchement man mënuma loolu quoi mënuma man du ma genre yooyu quoi man dama am fiancé te moom laay ñaan yàlla taxu ko mu insi insi ma bañ c'est-à-dire man léegi su ma bëggoon lu yomb wala euh, aw ma wala gëm ma sama dama koy topp ah léegi après moo refusé ma bañ ma bañ mu insi insi ma bañ léegi beneen dimanche bi ñun chaque dimanche lañ fa beneen dimanche bi ma ñëw ci plage bi gis ko mu ànd ak beneen booy xale comme sama morom quoi mais nu ma leen gisee ñu toog ñoom ñaar rek xam naa ne moom ak boobu am nañ benn complicité quoi après ma ma romb ko mu ne ma lóbboo après ma ma dem quoi ma gis booy bi teel ko kireenam ak coobam yëpp ñu an dem après ma dem ci benn à côté ay gars yi nekk ci place bi ma koy ma koy signalé ma ñëw ne ne gis ngeen tubaab bi ne góor jigéen te moo ngi yàq tontu ma ne ma kii da ngeen di seen bopp rek kii mënuñ ci moom dara déclaré nañ ko fu sonal xale yëpp yàq na leen. centre aéré imagine toi kooku tëddee na xale yi nekkee place boobu loolu loolu la ci nit mën. loolu kañ population bi ñoo war jël seen engagement xeex loolu mais a ay affaire de état wala affaire parce que góor jigéen fépp la am fépp la am. mais loi bi loi pour ñu criminaliser leen yow loolu loo ci mais imagine tois léegi ñu ne góor jigéen bu ñu ko jàppee dañ koy tëj vingt ans day tax góor jigéen du am wala da ngay jàpp ni da tëj ko vingt ans mu jeex comme comme ni ñu criminaliser ku rey nit wala wala wala ku sàcc bétail wala chaque jour gaa ngi sàcc bétail c'est que war a toog ñu yedd booy maanaam ñu xiir leen ci yàlla. xam nga ñii di jàng ay xasaayit ñii jëm del tarbiyu maanaam booy ñu xiir leen ci yàlla ñu nit bu ñu la xiiree ci yàlla da nga ragal man tey même buñ légalisé woon góor ñu légalisé man mënoo ma dugal ci góor jigéen te man jeune la mënoo ci dugal parce dama am iman dama gëm ma gëm xam naa ne jullit la xam naa ne suma religion bëgg ko mais du question ko ay criminalisé man pour man question toog waxtaan la rek ñu yedd booy yi xam nga wutal leen liggéey booy tamit gëm seen bopp xam nga ñu xool nuñ ko gérer ak booy rek que booy la rek affaire de booy la rek affaire de góor jigéen affaire de booy la booy lañ ciy dugal di leen di leen di leen ci di leen convaincre jox xaalis di leen dug tukki ay 4 x di la rek yar leen ci diine ñu conseiller booy yi ñu gëm seen bopp dem liggéeyi loolu la rek mais góor jigéen affaire de kii la rek affaire de phénomène la la am fépp la am ci monde ah man de loolu ci xalaat wax dëgg fa yàlla en tant que jeune nag waaw mais ñu buñ ko criminaliser tamit baax na nañ def vingt ans trente ans quarante mais du tax mu jeex de lu leer laa la wax gars yi nu mu leen gisee ni ñuy demee nii duñu reculer booy ñoo war a gëm seen bopp xëy liggéey gis nga boo xëyee di liggéey am ah, xëy liggéey di taqale di sonn di xëy huit heures di wàcc dix-sept di nga tal affaire de góor jigéen di liggéey vendredi samedi di liggéey lundi mardi mercredi jeudi vendredi ba samedi doo ko tal mais booy nga gis ñooy nekk ci boîte yi booy nekk ci plage yi booy am jot xam nga nekk ci internet yi gars di leen baab di leen convaincre di leen yónnee di leen jël ñëw vacances yi nekk ñoom loolu la rek il faut ñu sensibiliser population mais du affaire de xeex xëccoo sinon xëccoo bi du ñu du ñu yóbbu fenn ah man de loolu laa ci xalaat mais man moom dund naa ko moom man góor jigéen ñëw na ba ci man déclaré ma ma ma ma génn ci ma ma bañ proposé ne naa ko tamit gars yi na moom kii nii la mel nañ ko bàyyi noonu loolu nit mënu ci Eh, kon nag ñoo ko eh, gisandoo reportage bi nga xam ne ñu ngi ciy gërëm bu baax Fatima Zahra Ndiaye eh, ci liggéey bu rafet bu am solo bu muy def ci émission li ci biir Cheikh Cissé gis nañu comme ñu ko ndaw ñi rek waxee gis nañu kii moom lu mu dund la ndax proposé nañ ko ko te itamit gis nga ni mu ko bañee est-ce que tey bu fekkoon beneen nit la xel bu mu am wala pas-pas bi mu am ak gëm-gëm gi keneen mën a décliner offre bi ma may la or ma may la xaalis lu toll ci xaalis ak fi réew mi toll. waaw moom li mu wax ngor rek laa ci gis ak valeur xam nga suma bàjjan day wax ne bu ñu yeewee nag ci bunti kër gi na la sa ndawala ngi nga xool ko bu la doyul bu toggoon buñ ko toggoon ba mu ñori du la suur or bi xaalis bi gis na ne li yàlla bañ mu bañ ko moo gën mu nangu lu yàlla nangu nanguwut ci turi or loolu valeur la waaye gëm-gëm la wax na lu am solo mu ne buñ ko defoon li gaa yi bëgg it ne ku nekk góor jigéen ñu tëj la vingt ans du tax góor jigéen dañ fi mm-hmm. ndax euh, rey nit criminaliser neen ko ñu ngi rey mm-hmm. sàcc noonu détournement détourné xaalis jàmbur noonu mu ngi fi mm-hmm. maanaam lépp luñ criminaliser rek ñu ngi koy def kon pour man xeex bi dëgg dëgg dëgg mooy xamal nit ki jàngal ko yar ko waaye musal ko ci ñàkk. yonentu da daan wax ne yàlla nañu yàlla musal ci gàtt ak ñàkk. ñàkk ndaanaan ni ko faral <laughs> ñàkk ak mbëggee la yem dañuy suul ndaanaan. Mhm. waaye ndaanaan bu xamut fu muy teg tànkam wala ndaanaan bu tarxiis. Mhm. kon nga gis ne euh, bu ñàkk dañee mën nañoo fànqal lu bari ndax ñoom suñ ñuy jaay si góor jigéen dañ koy jaay ci am alal bii. Mhm. boo ko nangoo mayal ma Cheikh Ahmed mii mu doon góor jigéen ndax da ko bëgg doon. Mhm. dem ci Cheikh Ahmed na ko boo doonee góor jigéen Afrique gu tàng gi nga feebar Europe dina la yombal visa noonu leen ñu koy naxee kon su ñàkk dañee dina am lu mu solve dina am jàngoro bu mu saafara tey du ma ne bu ñàkk dañoon du am ndax bari na ay boromi alal yu taxaw ne ñoom góor jigéen leen Elton John daf ko nangu man ñi ko nangu rek laa mën a seede mhm. ñoo xam ne am neen alal am neen teraanga waaye góor jigéen leen mais attention balaa ñuy am alal dafa am accord bu ñu nangu ne bu ñu yeggee fii dañuy doon lii. Mhm. ba tey ñàkk taxaw waaye mosuma gis ko juddu ci teraanga màgg ci teraanga taxaw publiquement ne góor jigéen la gisuma ko ñi am alal yëpp te nangoo doon góor jigéen seeni bàyyi amuñ ko woon. Mhm. wala dañu nekkoon ay influenceur ci position bëgg continuer position bi ñu nangoo doon góor jigéen ngir sàmm seen loolu mhm. ba tey bakkan moo dund gëm yàlla dee. kon xeex góor jigéen daal man su ma ko doon xeex ci public bi maa ngi koy xeex ci suma bopp ndax man doonu ma ko. Mhm. ku ma jege doo ko doon. bugguma jur lu ko doon. Mhm. aw ma ci xarit aw ma ci àndandoor suma mbokk it gisuma ko ci. Mhm. gis naa nag ñuy jigéen jigéenlu ak jigéen ñuy góor góorlu gis naa it ñuñ ko tuumaal waaye mosuma gis jóg góor jigéen suma àddina. gis naa tamit ci télé ak journal ñu nangu ne ñoom góor jigéen leen waaye yàlla deful ma dox ba tase ak ñoom. kon loolu am na existe na ndax euh, xam-xam bi nga dund moo gën a wér bi nga gis lu wér la mhm. waaye bi nga dégg it wér na dew ma màkk dama fa dégg na kaabaang fa ma gëm ko waaye noonu laa gëmee ne góor jigéen existé na ci réew mi mhm. ndax dama juddu rek di dégg mañankase ba tey mosuma gis photom mhm. mosuma gis vidéo xanaa posé mañankase yow fekkee woo ko non ca kanamu juge ba. boobu xale la xaw ma ci lu bari. Mhm. mais gis naa ñeneen ñoo xam ne nangu neen na góor jigéen ku see mel ni am zozo mu ne moom jeeg bu mat palaasam la te góor la. Mhm, mu ne jébbale neen ko ñetti yoon. Mhm. fekk ko ndaw benn bi Murtani. benn bi Sweden foofu fekk ci moom. benn bi Gàmbi xanaa fi ñu koy dugal. dafa soppi yëf ji wala. non soppiwul mais fekk neen ko ndaw. moom moo ko wax ma dégg moom. kooku moom maa dégg bosam. kon pour wan la rek ne. oustaz ngay jàng de ma ngay. waaw moom mu ngay <laughs> muslu ma ngay muslu ndeysaan. kon pour wan la ne ñun ñëpp. pour wan la ne li kii wax man point yi ma ci gis mooy valeur ku ko am doo nekk góor jigéen. Mhm. xam nga oustaz cagatu bi mu ngi fi. Mhm. mais am na ñu xamul fu caga am. Mhm. boo téye woon seen loxo ne bu ngeen wanee kër caga dem àjjana safara leen jëm. <laughs> xamuñ ko mais man soo ma laajoon kër caga ma wax la benn bu ne fu mu ne parce que dama bon par exemple. <laughs> am na ñoo xam ne tey suma ma sëriñ laa El Hadj Cheikh Omar radiyallahu anhu den ñëw boole ko benn nit na ko day tux ñu indil ko yàmbaa bi ñu tegal ko mu oo kooku mu ñëw mu ne ko ah barakàlla dégg ne fa ngay tux sàngara di naan yàmbaa xamul sax bu ñu war a tux bu ñu war a naan. xam nga kooku tey melut ni man nga xam ne xam naa whisky. xam naa red wine. xam naa vin xam naa ay nakel yëpp man xam naa ko. waaye suma sëriñ xamu ko. fi ma ko xamee dem bu waat gis ko gis ko ci télé. Mhm. falaa laa ko xamee. mosoo ci. non mosuma naan. mosuma tux pour wan la ne tey man li ma doon ak fi ma ne. moo tax ma xàmmee ban boîte la ak mhm. fan mooy tëgg tey soirée Sénégal ak fu wàllu di tëgg xàmmee naa leen mbon gi ma bon a tax mhm. waaye ki nekk ci njub gu mat ta sax moom boo ko bëggoon a yóbbu vogue bi xamul sax vogue lan la mhm. Barham Diop dafa nettali mu ne waa dafa ñëw juróomi dërëm dafa jafe woon jamono jooju mu ne ku saaga ndey rek ma jox la juróomi dërëm kër maam Alaaji bu Baye Niass. Mhm. papi Baye xale yi naan saaga naa saag xamuñ saaga. Mhm. mais tey Adamo boo ko noonu boo saagaa jël coupe bi da ngay defaraat beneen coupe parce que saaga spécial la am. Mhm. no du ko xaccoo kenn. ni Messi dul xaccoo mën a futbal ak Cristiano noonu la Adamo dul xaccoo saaga donc pour wala ne nit ku ne la nga ne nga xam. dëgg la donc kii suñ fexe woon tey euh, euh, góor jigéen. am comme ñoom niñ koy xeexee ñu ne léegi ku nekk góor jigéen mën nga sëy utal leen jàkka lépp noo am na ñu ko du doon. utal leen jàkka. Mhm. fabriquer leen imam comme nu mu amee France. Mhm. fabriquer leen lépp di leen def ministre ak lépp. Mhm. am na ñu ko du doon jullit li muy neex neex neex am na ñu ko doonul. merci léegi nga ñëw ci góor jigéen li muy xat xat xat Sénégal ñi ko doon koy doon. xamante neen amante neen numéro man fekkee naa benn xeex. ñu ñu taxaw almadi trois heures quatre heures ci guddi foofu yëpp bloc kenn mënut a dem ñu wàcc fay oto yi mënut a dem ma ne policier bi lu xew policier baa nga mera mera mera mer bi ma ko ne lu xew rek saaga ndey la ci teg <laughs> ma ne ko waa lu xew mu ne ma xanaa ñaari góor jigéen di xeex ngir seen moromi góor ñi dañu nangam taan ndeyam quoi policier bi dafa mer ba waxut almadi gii la kon ñoom yi neen xamante ne mm-hmm. te ma wax la dara gis nga li ndaw si li. li li li waa ji wax nii. dama dem Nigéria hôtel Légende. mooy hôtel bi gën a cher Nigéria wala bokk na ci ci bokk. hôtel bi fa la jet privé yi di wàcc. koo bëgg a gis ci borom alal Nigéria xaar ko fa. Euh, ma toog nii sol xaftaan. wirda ba su ma oom yi di métti. may doxantu pour wirda ak it seet ndax li ma wirda yàlla dina ko nangu kenn gis ma rek gëm ma ñaan loo ma fay ma franchement moo ma tax a génn. ma doxantu doxantu gisuma kenn dox naa it ba sonn ma toog benn tubaab ñëw hello ma ne ko xam nga dagg dama dégg anglais te dama ci waane ma ne ko hi how are you mu ne ma can I have a seat ma ne ko yes ndax mën naa toog ma ne ko toogal mu toog na ma you are gentle mais ma you are ma fit bi ne rës mais ma ne non attends bugguma nangu ne góor jigéen mhm. parce am na ñu mën a jigéen mais caméra cachée tam day am. Mhm. Mhm. non pour xaaral rek ba ma ñëw mais commencement laa la wax maa ngi jàppoon ne ay caméra cachée. Mhm. parce que yooyu yëpp day am. toog rek naan la ñàkk bi ñëw na den lay pikir xaw ma waa jooju da koy def maxfuus. nga daw yuuxu dëkk bi fekk caméra cachée la ma calmer suma bopp. parce que tam kilifa la maa ngi wir de turi yàlla. am na lu may bañ. su dee caméra cachée après mën na tas fu ne. ma garder suma image. ma ne ko thank you. leemaat may tànk. mu ne ma man artiste la damay def design ba pare waa ji pilote la origine turque la allemand la mu ne ma damay def ay peinture nangam waaye comme yow nit ku baax nga te da nga jantal dama lay offrir pour may la benn kado ma ne ko amul benn problème su ma xel dem na ci yar al ikramu la yaruud li ñu doon wax teraanga duñ ko delloo te ma dama bugg lu rafet dama bëgg ay dessin ak yooyu ma ne ko demal maa ngi ñëw mu ne ma ni ma ne ko jox naa la suma kàddu dinaa ñëw mu dem ma woo jigéen yi nekkoon foofu nga xam ne ñoom du ñoom laa doon wër waaye gëmoon neen ma di daan ma jox ci ak yooyu ma ne ko kaay kii daf ma nuru góor jigéen mu ne ma ñun sax loolu lañu ñu nuru waaye yow kenn du la xool di la dugal ci loolu fooguma ko ma dem néegam fëgg mu taxaw xool ma comme man su may doxaan jigéen ni ma koy xoolee la ma xoolee. ci la mu mhm. te mënu ko wax kon gis kon gis nga góor ah, ma ma ñëw mu ne ma welcome mhm. mu ne ma toog ci lali ma toog ci fauteuil bi mu ne ma ma wàññi làmp yi mhm. c'est pas romantique ma ne ko non c'est bon pour man mu ne ma déedéet déedéet mu toog di okk sumay tànk ma lemaat suma tànk mu ne ma I can offer you five thousand dollars mooy deux millions cinq cent nangam mhm. ma ne ko fa wat mu ne ma for us to ma ne ko man jullit la mu ne ma man jullit laa eh. mhm. turki mu ne ma man jullit laa mhm. ma ne ko lii dafa xaraam mu ne ma noppil ku lay wax lu xaraam mu ngi ci lu xaraam màkka gi organisation la église yi organisation la ma ne ko d'accord mais man bëgguma lii mhm. macha allah mhm. bi mu buggee jóg taxaw ma ne ko léegi bàyyil ma dem utal la kenn mu ne moom buggul ko jigéene moom góor yàlla dëgg dëgg góor gu góoree la bëgg moom mhm. ma ne ko ok foog ma dem suma kii ñëwaat mu taxaw ma poñe ko xacc ko ma ne ko hé mu ne waa ma ne ko maa la ëpp doole maa la mën damay négocier ngir doomi aadama nga respecté ma nga ma ko poñe ba bëti xonq ba ma bàyyi ko. Mm. li lay wan seen ñàkk jom mm. oh my God you almost kill me. <laughs> maa ngi bugg ree waaye munu ma ree. dëgg ma téye suma bopp ma ne ko can I leave. Uh-huh. ndax mun naa dem. dëgg la mu ne ma waa ma woote ci téléphone bi kenn ñëw ma ne ko dama duggoon néegam. Mm-hmm. lii yëg lii yëg tax maa ngi génn parce que mun na la tuumaal. dëgg mm-hmm. Mm-hmm. woote réception. ñu ñëw ma ne leen lii la dama bugg a dem. ñu génn dem maa ngi àndoon ak kilifa bu mag. mais ñemewuma koo nettali tey laa ko doon a nettali. munuma ko koo wax. Mhm. mais pour wan la ne ak loolu yëpp mhm. mu jaar ak man mhm. su ma ne mësuma gis góor jigéen mooy acte bi. nañ koy defee mësuma ko gis mais nee naa la yàgg naa gis kuy jigéen jigéen lii man la dal. te bi may dal nekkuma sax si xaala bi maa ngi ci jaamu yàlla ak or goo xam ne. kenn mënula koo xam. mais gis nga fi mu wax bugguma jigéen jigéen lu. man ku góore laa bëgg. gis nga benn guddi parce que su ma ragal yàlla man yeggul ci moytu jigéen. Mm-hmm. su ma ragal yàlla mm-hmm. yeggul ci ñàkk a tardé waxtu julli juróom mm-hmm. su ma ragal yàlla yeggul foofu su ma bëgg xaalis moo ma jaralul tëdde góor waaye jigéen mm. bu ma noon kaay tëddee ma ma jox la juróomi ju junne dollar danaa ko def. cheikh bi nga may comprendre comme dafa dafa exemple mooy bu ma bëgg a a joxe maanaam dinaa ko de pour wane ne ma bañ du ragal yàlla mm-hmm. Mm-hmm. ragal yàlla sa ngor ngor gi ak tam xaw ko man munu ma comprendre gis nga tëdd góor sa munu ko. <laughs> man góor soo ma naan dama la namu dama du ma la tontu looy namante ak man man munu ma ko comprendre. ndax dama xam tellement man maa ngi ñaari jabar te bugg naa yeneen ñaar. Mhm. bànneex bi ma xam ci jigéen gis ko. Mhm. non munu ma imaginer góor. du ma tëdd góor. man aw ma sax àndandoori góor bu may àndal man aw ma ko bugguma ko jigéen wala suma bopp wala sëriñ bu may àndal ngir roy ci yow mbaax bu ma demee ne ba nafsiya ñëwal ma duma ko tuddee lislaam damay nangu ne ci mbon laa ne ma mhm. fa jógee wa at bayi sa yi atan xasanata tamhuha layu ma mbon nag waaye ci lii laa ne d'accord alors euh, euh, bi dafa am solo mhm. extre bi dafa am solo parce que dafay wone encore suñu valeur ñun Sénégal mhm. conscience bi ñu am. Mhm. que ni ci jeunesse bi dañoo condamné góor jigéen. Mhm. Mhm. bëgguñu ko dunduñu ko amuñu éducation bi. te valeur yi valeur yu fi la. ma joxe ci benn exemple rek suñu benn mag mu baax. ñu naan ko Serigne Khadim ma jaxate kala. bi ko tubaab bi ko tubaab bi bëggee bëggee bëggee guerre. mu ne ko bindal ko benn lettre de promesse mu dëpp lettre ba bindal ko ci Serigne Khadim ma jaxate kala alallahi tawakkala ci kër ma kala. wane wane ni maanaam Sénégal ñun dañu yàgg am ay valeur mooy sànq li cheikh bi doon wax mhm. ni combat bu ñuy mëne war nañoo mën a xool base bi mhm. Mhm. pour man actuellement nii maanaam coow lu bari li sax ci Sénégal jamono bii ñi ñi ñi di leen tudd sax di leen may bëri sax ñoom am na lu mu leen di yokk am na benn plus pour man ci sama jàngat bi am na benn plus bu mu leen defal mais man pour man actuellement nii lan moo war a mën a nekk sax solution bi solution bi sax lan la war a mën a nekk mooy sëriñ daara yi nañ dellu ci daara yi nañ def ay formation nañ dugg ci koñ yi nañu def na daawa daawa bi daawa bi mhm. jarul mu ngi nekk ci place publique bi na nañ dugg ci kër yi nañu wax mhm. Mhm. ku ci toog say njaboot parce que alxuraan dafa ne yaa ayyuhal lazina qu anfusakum wa ahlikum naara fegal leen seen bopp sawara fegal ko seen i njaboot man wax dëgg yàlla man kër gi ma juddoo loolu laa xam man damay fàttaliku bi may am âge ci sept ans maa ngi koy fàttaliku xëy na li may wax ne sama waajur bu góor mu ngi dund a ñu toog mu ñuy nettali histoire yéen di yàlla Yuusuf jékki-jékki ba si yàgg muy jooy sama benn rakk xam naa mu ngi may déglu mhm. buñu naan paate mhm. ni ah waxtaankat baa ngi jooy mhm. période boobu âge am ci la gënoon ndaw parce que ça veut dire que loolu buñ ko buñ ko buñ defee ci yow en tant que jeune di waxtaan ak yow naan la fii nga bokk lii mooy say valeur am na loo xam ne doo ko xalaat ci sa àdduna et je pense que affaire bi foofu la war a nekk mais tey bu fekkee ñun dañu génn imaam yi bàyyi imaam yi bàyyi daara yi fa nga war a jàngalee nga war a joxee dars boo ko boo ko abandonné nga julli ba pare ay jeunes ñëw julli nga war leen a defal daaw war leen a yokk mais yow bàyyi nga loolu yëpp léegi yaa ngi ñëw ci place publique bi di wax di wax dëgg yàlla di prôné yeneen ak yeneen ak yeneen mhm. su boobaa pour man da promotion nga leen di defal waaye solution bi mu ngi ci mhm. nañu wax ak jeunes yi mhm. man de wax dëgg yàlla personnellement en tant que jeune damay wax ma ni bu ma mënee def tournée national ak ñi ma àndal dinaa def tournée nationale seeti kilifa diine yi seeti kilifa aada yi mhm. waxtaan ak jeunes yi ñu xam Sénégal ñun lan mooy suñu ay valeur ànd ak waa ànd sàmm jikko yi loo di wax non xam nga man man man dama la dama la dafa bokk man dafa bokk man ci association bu bokk ci biir ànd sàmm man dama lay wax ne non waaw man dama lay wax ne la leen bëggoon boole ci boppam mhm. waaw mu toog ngeen soof ko boole ci boppam non du question de ñu laal leader ñu laal leader mu du question de soof sax waaw <laughs> exactement du question de soof sax mais dama ni xam nga waaw non xam nga xam nga xam nga xam nga ñoom peut-être que mën nañoo xam seen réunion yu mag mais maanaam nit ku nekk. suñ nee la bii kat lii la ak lii la nga ñëw toog ci réunion boobu ñooñu nga leen mën a askanale. n'est-ce pas waaw loolu la xam nga maanaam man dama jàpp ne dama. dama dama jàpp ne yow yow yow gars yi tóob la ñu la tóob tóob la ñu la tóob. non du tóob non non dama jàpp ni dama tey jii bu ñu wootee place de l'Obélisque sax nga mhm. dem ci ñoom mhm. ci ñoom nga bokk parce que yéen saa saa dafa xam mu ni képp kuy ndurul aw ci ñoom nga bokk te loolu lislaam la mhm. man loolu laa jàpp xam nga maanaam chaque jour nañuy référé ci suñu diine parce que ñoom ci diine la wootee et que wax dëgg yàlla euh, ñun dañ ñoo jàngal suñu wax dëgg yàlla du ñu ay jaay man dama jàpp ni bu ma fekkoon benn manifestation kese laa bokk ci ñoom laa bokk su ma tey tey tey tey wallahi al azim su ma gisoon ci yow ni sama diine mën nga ma ca yokkal benn xaraf boo xam ne mm-hmm. tey ji xaw ma ko mm-hmm. insha allahu rabbi su boobaa ma ñëw tarbiyu mm-hmm. mais nag or or diine ñu di jëm ci wàllu àdduna ak bu ñu gis bokkul ay gis-gis damay gëm ne bokk ñu ay gis te nga xamee da ngay politique nga far opposition nga far opposition ma fa pouvoir wax dëgg yàlla mën ñoo ànd dañuy waxtaan ba jiboo exactement loolu la euh, euh, euh, imam mooy reportage bi nga xam ne waaw reportage bi de yaakaar oh, naa ni solo uh-huh. am na solo maa ngi doyloo aussi di ci kilifa yi wax. Mhm. am na solo waa ji tamit vraiment wax na lu am solo ci mhm. euh, nu mu gisee mbir yi ak aussi nu mu bëgg réew mi doxee nii. loolu ñu ngi koy maa ngi ci dooloo li ci ñi li ci kilifa yi wax. Mhm. am na solo trop mais mais lu jëm ci wàllum promotion bi comme ni ñu koy waxee tey bu ñu demee. bay am fit du sëy ci kaw ay juma. tey yàlla oh. Oh. ñu mën faa oh. sëy ñu gis ko est ce que ñoom nekkul ne loolu lañ ciy ut. pour nit ñi mën leen wax. média bi bind leen yéen ngeen wax ñu gën a xam ne euh, fii ci Sénégal góor jigéen ñu ngi fi am doole. waaw xam nga ci cadre promotion bi la léeg ma dem benn journaliste ne ma yéen yéenay def promotion comme ni ko Abdoulaye waxee léegi mhm. waaw bu fekkee ñu ñoo def promotion nguur jigéen te yàlla subhanahu wa taala bindoon leen ci benn téere boo xam ne 1400 ans ci ginnaaw la mhm. léeg ma jàng romb passage bi Abdoulaye mi la léeg mu jàng romb passage bi mhm. yàlla bindoon leen ci téere alxuraan boo xam ne du fay ba ñuy wal buuf teg yi kooku ku def promotion seen góor jigéen yi kon kay li ñu war a wax kay mooy ndax sénégalais yi xam nañu alxuraan d'abord bu fekkoon xam nañu alxuraan ji du ñu wax ne ànd sàmm jikko ñoo def promotion góor jigéen ñi parce que dañu xam ne fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi ñun dañu bëgg rek ab ñàkk dafa am luy raam di dugg suñu réew ñu bokk ci réew mi am ci gis-gis gëstu ko ba xam ne lii fii la jóge fii la jëm ñu bëgg koo ñàkk li dong leer na oustaz dafa am lu xam solo Hamza wax léegi sànq cheikh bi mu ngi wax ci bàkkaar yu foor yi nga xam ne wax nañu ne mhm. euh, moom mënu jàpp ne loolu gën a faw góor jigéen mhm. maanaam lu ci mel ni jaay sa mhm. bopp xam nañu ne l'islam daga ko daganalu ko mhm. naan sàngara lekk alal jirim ak yooyu ñoom ñëpp ñu ne bu ñu faatoo dañ leen di suul ci armeel te du am coow du am dara te la moo tax góor jigéen bu faatoo muy muy muy am loolu ñu koy suul ci waaw xam nga xam nga xam nga moom laa ko doon wax léegi ma ne ko góor jigéen li ci yàlla def daf ko deful ci ab caga defu ko ci naankatu sàngara donte naan sàngara dégg nga ko euh, yonent yi wax na ne ndeyu ñaawteef waaye li li yàlla def ci góor jigéen xeet wu yonent yàlla lóot bi nga xam ne ñoo doon def ngóor jigéen mhm. na leen yàlla xalage daf ko xalagewul nànkatu sàngara xalagewu ko ab ab ab ab kuy jaay boppam ci mbedd mi xalagewu ko kuy def carte donte yooyu yëpp yu bon la mhm. foofu la différence bi nekk léegi nag sib gu ko askan wi sib ak yi ma la wax fii léegi ma ne la contraire la ak doxalinu àdduna maanaam contraire lu yàlla bëgg la parce que de boo déggee léegi euh, sama toma li mu ko waxee léegi Cheikh li mu wax léegi ci ni mu expliquer noonu la ko waa ji doon aborder ci dëkk ya daf lay wal ni jeexital yooyu dafay raam te day dox te fii la jëm si li tax li tax muy jëm si fii mooy ñun li ñuy bañ rek kenn weddiwul ni Sénégal am na góor jigéen mënuñu ko weddi mhm, kenn ko weddi parce que wér na ni am na fi waaye ndax jàpp nañ ci kenn bàyyi ko ah kay mhm. jàpp nañ ci ay góor jigéen bàyyi leen parce que amul loi bu leen di jàpp. Mhm. acte contre nature danañ fi condamné acte contre nature la ñuy wax. Mhm. ñaari góor yuy fóonante publiquement ñu leen di gis. ñu jàpp leen tëj leen un mois pour defal population bi. man toog naa commissariat a wax commissariat bi ban la. benn ci commissariat bi euh, benn ku fay liggéeyee ne ma yéen fekk yàlla dafa dogal sax mu doon suba teel ñuy seetaan journal rek. ma ñëwoon fa suba teel mu seetaan journal rek mu gis ma ci journal bi. Mhm. ma doon wax ci benn émission ci affaire ànd sama jikko yi. Mhm. mu ne ma mais kii yow ma ne ko waa kii man la kay. ñu waxtaan ci affaire ànd sama jikko yi mu xamal ma ni man ñun dañoo am problème. Mhm. wallahi seen xeex bi ngeen di xeex ñun ñëpp ñu ngi ci adhéré. parce que ñun dañoo am problème dañuy jàpp ngóor jigéen te xamuñu luñ koy def. te ñun ñëpp ko bañ. te amuñu luñ ko def saa yu ko jàppee la koy bàyyi lañ koy bàyyiloo ca kaw la jóge takk-der la. ci kaw maanaam day am intervention wala. saa yu ñu leen jàppee lañ leen lay tax ñu bàyyi ah, bi neen daf leen dañ leen di téye provisoire pour population bañ leen a lynché. d'accord bañ leen a di téye. Mm-hmm. ba population bi dal. Mm-hmm. ndigal jóge ca kaw ñu bàyyi leen ñibbi ñu bàyyi leen ñibbi. Mm-hmm. nee ñun dañuy dund yooyu mu naqari ñu te mënuñ ci dara moo tax xeex bi ngeen di xeex ñun dañ ci adhéré. beneen bi li waral xeex bi tamit mooy ku artuwul di nga àtte. boo gisee ñu koy jam baaraam bëgg mu artu ñun ñëpp ay ñi ko fi dund. da ngeen di artu pour mu àtte. pour mu àtte. Mhm. dañuy bañ mu atte mhm. àttin woo xam ne baaxul. Mhm. dañ koy artu ci ni am na luy raam ndax bu fekkee ñun ñëpp nangu nañu ni population bi bañ nañ ko ba yow mii léegi waa ji la ko doon proposé nga xoj ko. ba ay bëtam yu xonq. li muy tekki mooy ëllëg mën nañoo dox ba jamono dox am ku daje kenn ku koy def ci mbedd mi. mu duma ko mbaa mu rey ko population bi génn ñu jàpp ko ko tëj. mu amaat yeneeni mbir. mu mujj nag di mujj fay fajal sa bopp fajal sa bopp boobu nag la ñuy bañ moo moom moom la ñu bañ ñu egg fa moo tax ñu bëgg président at atte atte mooy lii suñu euh, suñu pas-pas nanguwu ko benn mooy yow gëm nga ne buñ ko criminaliser góor jigéen jeex Sénégal déedéet day wàññi xamul tax uh-huh. dootuñu nangu def ni ànd sàmm ji koy defoon bërki demb mooy génn di manifester wu xam nga réew yu ko nangu dañ leen a may ñu génn di manifester wu yëkk seen drapeau ci place publique yi uh-huh. dañ ko def dañ ko fay def di génn di manifesté wu di def seen i ndaje ñu leen di xam comme ni ñu xamee ànd sàmm jikko yi ni mu defee nii te seen i association ñoo ngi fii a ñu xam ñoom góor jigéen ñoom ci Sénégal waaw mais Jaaji Diouf xam ngeen ko waaw Jaaji moom xam nañ ko te moom nëbbatuwul nëbbatuwul mhm, Jaaji Diouf lan la mu ngi défendre moom mooy défendre ñi nga xam ne góor jigéen la si moom it góor jigéen la avocat la wala góor jigéen la rek ci la bokk ci la bokk moom nëbatuwul moom nëbatuwul nëbatuwul ah, ah, te mu nga récépissé association dinañ ko jéem a dalal di ko doxal ci biir bu ko defee fara voilà voilà léegi hmm. léegi léegi kooku léegi kooku ak ñu mel noonu ñu mel noonu ñoo ngi ci réew mi tey de lay door a dégg lenn lenn dong lay xaar <laughs> mooy agenda bi egsi fa mu yegsi légalisation bi wér sénégalais yi adapté ko nangu ko parce que loolu moo waral ñu génne ko léegi ci cadre mag ñi bëgg ko dugal ci école bi. Mhm. pour nampatal ci xale yi ñu màggaale ko. pour xale yi comprendre ci euh, programme daam booy xam nga wax na mhm. bi ñu ko dugal pour ñu nampatal xale yi pour xale bi bañ am problème bi ma am man. Mhm. problème bi oustaz am ba su ko gisee yaramam ji daw mu laal ko mu daw. loolu la ñu bëgg a dindi ci xale bi di jàngal xale yi à 6 ans ñu leen di jàngal éducation sexuelle. ñun day six ans la ko fekkoon ñu nekk daara ja doon jéem a xam ndax dañ mokkal alxuraanam déet mm-hmm. non éducation sexuelle aw ma problème nga jàngal ko xale éducation góor jigéen la am mm-hmm. problème mooy fexe ba xale bi mën a xam lu ministère du genre dafa am Sénégal poste ministère yëpp am bu ci nekk am na am na am na cellule de genre bu fa nekk mm-hmm. genre genre bi moo waral sa carte d'identité bi nga am tax muy muy sa carte d'identité bi nga am ci préparer agenda bii ñu taxaw nii moo bi nga am ñu dindi ci góor. Mhm. amatul sexe féminin dindi ci jigéen dindi ci baay dindi ci yaay. Mhm. pour préparer góor jigéen bi bu ëllëgee ñoom ñaar bu ñu takkantee. Mhm. doom ji ñuy am gëm dañ koy adapté doom ji du am yaay. waaye day mën a am parent un parent deux du complexe maanaam dañ ko bëgg préparer terrain bi su ëgsee day am carte d'identité comme man. parce que bu ëllëgee bu am carte d'identité boo ko laajee kuy sa yaay du ko mën a wax. ndax ñaari góor ñoo ko seq. moo tax ñu dindi genre ñu dindi sexe bi dindi turu papa dindi turu yaay ci kii bi ci carte d'identité lu tax tey da am këyit goo xam di ko wuti fee léegi dañ lay wax indil sa indil sa ancien carte d'identité ñu la indil sa euh, sa sa këyitu juddu mhm. pour lan jaru ko woon pourtant mën nañoo def suñu carte suñu turu yaay suñu turu pap mhm. mais dañ ko ciy dindi pour préparer leen terrain bi mhm. ce dangereux donc pour wan la ni ñoom ñu ngi doxal ñu bëgg a doxal ñun nag loolu la comprendre ñu bëgg sénégalais yëpp nekk ci gis nga nga permis yi nañ ba ci def mais defoon yu njëkk yi defoon nañ ci genre. Mhm. Mhm. donc danger bi foofu la nekk mooy gars yi ñu ngi toxal ñu ngi doxal te bàyyiwuñu léegi nag li ñu bëgg ñun mooy ñu taxawal agenda boobu ba pare criminaliser ko criminaliser ko mooy yokk mooy li kii doon wax léegi di wax ni mhm. article bi 319 dafa wax ni acte contre nature. acte contre nature la waaw acte contre nature la waxoon 1966 la woon. ñoom ñoo ko dugaloon ci acte contre nature jékki-jékki génnewaat ko ci acte contre maanaam ñoo ko dugaloon ne wax ne euh, góor jigéen. tawat la feebar la ñu dem ci ratifié ca ci seen convention internationaux yi ratifié waat fa dara dindi waat ko ni kii kat ndekete mhm. ñun ñoo juum wax ni tawat la waaye du tawat choix la d'accord oustaz léegi bu ñu nee choix la nag il faut ñu wutal ko porox loolu bu mu duggee société bi ñu nangu d'accord Fadel euh, sa point de vue par rapport comme tey jii tey bu ñu doon wut solution lan nga xalaat ne bu ñu ko defoon xeexu ànd saamu jikko yi euh, dana gën a yomb waaye tamit askan wi seen xel dana dal ngoone di rafetlu reportage bi ñu def ba pare mhm. ak li nit ñi réagir ak ki wax Euh, boo déggee kàddoom dangay xam ni fëkk yóbbuwoo ko. xam nga ki ñaak suurul ñetti di ko suur. am na ñoo xam ne boo leen joxoon àddina ak lu ci biir du tax mu soppi seen jikko. dëgg te euh, li ma naan ki ki bëgg a changé même bu ko dara fekkul tara sax du tax mu du teem day changé. bi ci njëkk mooy nit ñi xam seeni ba pare. parce que nit bu xamul ki mu doon lu ko jël yóbbu day yomb. Mhm. ngóor am na ñoo xam ne même bu ñu jëy ay xeer. ci ngor la ñuy dee am na kon même boo leen tegoon àddina lu ci biir du leen soppi ni nit di pas ci ci ki mu gëm ci sëriñam bi mu jokku gëm ni kenn mënu maa convaincre sama àdduna ba jëlee ma ci tarixa bi ma nekk noonu la nit di amee pas-pasu ne laa amee pas-pasu jullit ba kenn mënu maa jëlee ci li ma nekk na ñoo xam ne waxuma ay million mais ay milliards soppiwu leen mm-hmm. loolu nag dafay ne nit am ñoo xam ne fukki dërëm mën na leen a soppi loolu nag ci nit lay nekk mm-hmm. man li ma gëm mooy mbon day ne ci nit ngay nekk ci yow ngay dudduwaale ko dem ak moom man gëw ma kii ñàkk ko dugal ci góor jigéen déedéet dafay nekk ci yow même boo même boo même boo ñàkkul même boo amu amoon dangay nekk loolu beneen bi ci des mooy que ni euh, li imam wax mm-hmm. mbon mën taweesu sa moroom góor ni yow nga koy aborder folo bon mën a yem mm-hmm. mun waxuma yeneen ñaawteef yi ay naan sàngaraak utal carte cagaak yooyu yëpp man bon la benn taxut mu baax mhm. waaye man bi ma jàpp man ni moo gën a bon mooy mooy ndey ñaawteef yi man ci man ci ma xalaat mhm. mooy ko ni yàlla bind la def la góor nga ne neexu ma pour man folom bon gën a yem te leneen li ci kii wax muy la am solo mooy kan yi loolu euh, nekkul nit ñi ñoo koy dindi fii mais état waroon na leen ci accompagner accompagner boo xam tey dana gën a yombal liggéey bi mhm. parce que tey bu fenn ke kenn koy jiñ kenn ci koñ. Mm-hmm. mu doxalee noonu nga dóor ko doo fanaan seet ka da lay tëj. ñu bay tëj leen ci mel noonu. mën ngaa joteeg moom ci kaw tali mu saaga lay ndey tàppaas la coo tooñ la tëj la. Mm-hmm. tooñ la la. comme ni mu ko waxee intervention day mujjee am ñu woote ci kaw ñu daal di koy bàyyi. sànq moom wax na ko nee na gis naa embouteillage ci kaw route Almadies bi. Mm-hmm. coow li ne fa. ñaan ñoo ko indi ñoom ñaar. ñoom ñaar ñaar. ñaari ñaari ñuur turi pourtant tey soo ñëwoon pes ci kenn. Mhm. di am mën nga di des sa dund lépp nga ko tëdd kaso. <laughs> parce que ñoom sax dañ la koy wax boo nu tëjee duñ fa fanaan. Mhm. sànq ku baax ki wax na ko. Mhm. dem na ci kenn ci takk yi ne ko ñun lii ñun la gën a naqari waaye bu ñu leen jàppee fu ñu leen di génne xamuñu ko. la kon lan mooy problème bi. li ma ciy dolli rek mooy nit ñi gën a conscient su jeunes yi xam ne àdduna dara continué wul. Mhm. te boo xool ci ñi mu jot a daal seen mujjanteel baaxul donte ay milliards la ñu yoroon. Mhm. ñu ngi kuusu. Mhm. ñu ngi am ay problème parce nga yàlla c'est yi ci mën a fekk. yàlla bu la yàlla bu la yóbbantee nga bañ day bàyyi ba nga yanu mu teg ko ca ndab la. nga yénnee ko ndab la gis yóbbante ba. dëgg la yàlla mën laa bind def la góor ne la nii laa bëgg nga dundee ko. nga bañ loolu ba pare bëgg sa mujjanteel di baax. munul ne. kenn du ja kenn li ma naan kenn du gàll meew kenn du nàmp meew gàll diwtiir. munul ne. mbon amul njeextal. soo ci nekkee balaa ngaa faatu gis ko. jàngat bi war naa doy ci xoolal ñi ko nekkoon rek seen mujjanteel. fan la nu feebar bu bon. mbaa nga tawat nit ñi di la daw. mbaa nga nekk circonstance yoo xam ne yow réccu nga ci su ma yëgoon du def lii. amu ci lu gën a metti wax naa ko léegi. ñaari jeunes ci kenn ki faatu tisbaar ñu denc ko kenn ki faatu tàkkusaan ñu ne ko duñ ko denc mais lan mooy problème ba duñ ko denc loolu rek loolu rek parce que boo la yàlla bindee nga nekk góor kii di góor yow ñu lay jiiñ moom nga ak doom moom kun dem banaan moom nga moom rek man jàpp naa ne yow moom nga mm-hmm. yow bu ñu demee ba moom nga am na ñoo xam ne bu ñu dee dox ci mbedd doo dab ne leen moom nga même bu ñu doon kay kay ci mbedd mi te nit ñi mën na toléré sax tey jii nit man di dox ci mbedd mi ñu ne nangam mais nit ñi mën noo tolérer nit romb la di def ay façon def di def yooyu. kon nag kii judd ci koñ bi nga juddoo ci koñ bi nga faatu ñu denc ko keneen faatu jëkk ci quartier bi te bi ñuy tabax armée li jëndul ciment jëndul suuf. Mhm. population bi tax na duñ ko fi denc la wane ba tax ñu ko fi denc. d'accord frère nit ñi il faut ñu xoolee foofu. Mhm. parce que ki tere ne doo fi denc say néew bi tey moomul armée li mhm. mais su amee audience taxaw ne doo ko fi denc mais lan nga ko wan ba tax mu ne kii tey duñ ko fi denc. man foofu laa jàppee ni man waxuma ay fekk la ñu seeg yow fekk la ñuy la foofu daa sori. Mhm. du duñ fa yegg. ndax nu wax ci nit kuy mooy yàlla ku mooy kuy bon. Mhm. faaw nga dem wuti jot seede kiy jóge fii. Mhm. kiy jóge fii kay mooy yàlla du la ba xaar boo woowee benn seede balaa seneen beneen baa ñëw mu tippati kon kañ nga koy teg si bat. du ko ba xaar rafet na macha allah ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo waale foofu. li ma ciy tàggatoo mooy di gërëm ñi ni seetaan lu luñ fi wax yàlla na dëppook muy ngërëmal yàlla. lu ci wax loo xam ne waruñu ko ci wax nan xam ne doomu aadama matul te day juum mhm. lépp lu ci nekk rek nan ko jàppe ni euh, matuñu du suñu xam-xam amul xam-xam jàngu nu waxee wun suñu xam-xam waaye ci xel li nu suñu xel borom jox ci xel ñuy jàng di xalaat mhm. xam nan ni ñaari góor buñ taxawee kenn ki faatu ñu ne ko denc nan la kenn ki faatu ñu ne ko ñu la denc la tax du ko denc loolu xon ko xoolaat di ñaanal ñëpp daa lu bari du nga koy feeñal jërëjëf Fadel mbégte la ñu ànd ak yow ci eh, plateau bi eh, Cheikh daal di lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo waale ñu doon seetaan li may tàggatoo mooy gëm naa ne solution góor jigéen pour xeex ko ci réew mi ak génération bi ñëw mooy communité bu ne bay waram ibaadu rahmaan yi neen gën a bay seen waar ba bum dugg ci biir ibaadu yi murit yi neen bay seen waar ba kenn du wuyoo sëriñ Tuuba ne góor jigéen la mu dem ci waa Kër Ndaw dem ci Laayeen yi dem ci fépp ñi ñëpp li leen gëm di leen tuddoo ci réew mi buñ muccee ci loolu rek réew mi mën naa mucc waaye buñ sàgganee ba ab tiijaan mun a doon musicien mun a doon fecckat di woy Maodo ci biir boîte yi wala naanub sàngara di woy sëriñ Touba ñu sàggan ba ab caga booy waxaale ak ma mu ne la barki Baye Niass man lii boo ma fayut lii du ma tëdd ak yow mu valable ci Serigne yëpp mu dem ba tey eh, eh, eh, nga gi mun a gis kuy lekk alalu jirim ci turu lislaam nga gis policier bu jàng sol drapeau Sénégal ci mbagg mi mun laa jàpp nga def fraction mu war a sàmm réew mi sàmm bakkan yi mun a jël ci yow mille francs bàyyi la nga dem sàcc gënte yees policier boobu donc yii yëpp suñ ko defarul nag dañuy sonn mais day mel ni yàlla ji doon taw nga naan ko taxawal taw bi day wàcc dañuy sonn mais góor jigéen foog mu dugg suñ néegi yi mu dugg suñ kër yi foog góor jigéen toog ci tànt gàmm foog góor jigéen dem màggali mënuñ ci dara ndax actuellement ñi doon góor jigéen te nëbbatu ñu ngi dem Touba ñu ngi dem Medina Baye ñu ngi dem Laayeen appel day jot ñu muuru sol lu weex toog te ñu ngi góor jigéen góor jigéen rek xaw ma olof daf ko amalut ñaari tur waaye jigéen yiy jëflanteeg jigéen moo ëpp ànd naag suma jabar ma ngay wax ñu toog restaurant jigéen ñëw tegal ko 100000 ak numéro xamul li xew biñ ñëwee ñu woo ko def ko opado daf ko doxaan te kooku yaayam ko siiw la ci réew mi donc pour wan la ne man de li ma gis ne moo gën a noon feebar mooy jigéen ak jigéen yuy sëy ak góor jigéen bu am jabar wala am gel ak jigéen bu am jëkkër parce que fi ma dëkkoon ma mel benn courtier moo doon wax ak man mu ne ma sa fii boo ko defee appartement meublé day gaaw a dox ma ne ko lu tax mu ne ma jigéen ñi léegi dañu xewal dara dañuy xaar ba seen jëkkëri liggéey ñu jël seen appartement dajee fa ñoom jigéen ñi neen nga foog ne dañuy waxtaan wala dimbale société bi. dañuy rijante mooy mooy jigéen ak jigéen ni ñuy tëddee jël sa awra jigéen teg ma bos ñuy riijante parce que amuñ lu dëgër lu mën a dugg. pour wan la ne lii rek leen fay def jigéen ak jigéen buñ paree. ku ne sol sa garafaas muuru wàcc dem sa yoon. fay na bi dem. ci Sénégal mu ngi Sénégal. donc jigéen ak jigéen ni mu bëree ak nekk sa biir néegu sëy fekk yow amoo benn sentiment ci góor boo paree yaa ngi wax ak jigéen sa jëkkër a nga koy gis du mun a fiir ndax xalaatut na yow mën ngaa nopp jigéen. ah kon donc looloo gën a garaaw yii moo gën a bëri. góor ak góor guy sëy biir senegal mhm. soo xoolee jigéen ak jigéen yi sëy moo ëpp fuuf góor ak góor yuy sëy mhm. ñi nekk ci relation ak seen oppos opposite maanaam góor bu nekk ak jigéen. Mhm. jigéen bu nekk ak góor te nekk ak moroomam it moo ëpp. Mhm. lii yëpp nag lu koy xeex mooy fokk ñu defaraat suñ bànqaas yi mhm. garab gi mooy lislaam waaye bànqaas yi mooy tarixa yi ak kër diini yi foofu buñ ko defaraatee mu ñoŋ ba ku yëkkati ne ku sopp sëñ bàmba sa loxo ca kaw ñu ne la xee bu mu fi amati sëñ bàmba yaa ngi koy soppee jàng xasiida sëñ bamba yaa ngi koy soppee jàng alquran sëñ bamba yaa ngi koy to soppee topp sunna mhm. lii bu amatee du baax ci yow mhm. xam nga 1987 leen commencé tëgg si 80 yi ak fin 75 leen commencé tëgg sëriñ si mais duñ leen daan tëgg mhm. bi mu amee benn ñaar duñ daan dem Touba duñ daan jege Medina ndakaaru leen koy defee te si place bu fermé wu leen koy defee kaset yaa ko génnee wala nga gis géwél yu toog di woy sëriñ mais ci xalam rek di ko waxal yu baax yaa jàng alquran yaa teel a nangam bàkk gor dafa am lu muy def ci gor. Mhm. waaye nag di ko tëgg di fecc di nangam loolu yàggut. d'accord li ko dooleel nag mooy ñi ci war a wax a ci noppi. xam naa dinañ ci eh, jël ay matukaay yu mat sëkk. da nga ko ciy jël yow. non ñi ko war a jël ndax man moom tuuti naa ko jël ko. waaw ñoom laay waxal dama ne. Mhm. foog kër diine bu ne. ka ni muy bañee xam nga Touba kenn du fa sol mees jege. jumaa ji yooyu yëpp ñu bañ ba amu fa tey ku noonu seriñ Touba du jullit doo fanaan mhm. niñ bañee loolu mhm. dëgg dëgg buñ ko bañee woon bu kenn tuddati sëriñ Touba ci musique bu benn mbëri làmb ngem wooti di gërëm sëñ Touba wallaay mu jeex man wóor na ma ne tey kilifa yi ku ci taxawoon warlu waat ne maa ngi ñaan ci yàlla ku tuddati suñu sëriñ diw ci ndangam yàlla bul tekki bul am ndam nit ñi bokk. Mhm. nit ñi bëgguñu yàlla. bëgguñ yonantu waaye bañ neen ñàkk bëgg neen seen bopp. Mhm. kon loolu laay tàggatoo di la gërëm bu baax a baax soxna Ngone. Mhm. di gërëm kilifa gi. di gërëm Fadel. di gërëm suma waa ji. Abdoulaye nag moom. bëgg naa mu mu bàyyi di wax ne ànd sàmm ji jikko la bokkoon <laughs> moom na wax ne bëggoon na leen sopp na leen waaye musu cee bokk man moom musuma bokk dew ma seen réunion man dew ma seen réunion dew ma seen démonstration mm-hmm. dew ma ci loolu mm-hmm. man maa ngi jéem a fexe jikko yu bon yi nekk ci man mu jéem a baax ba pare ma jéem a dimbale nit ñi sàmm seen jikko waaye feeg maa ngi am yu bon ah. suma bopp daf ma doy caq ak njar d'accord Abdallah xam naa fa ngay jaay wi tàggatoo rek xool noo def ak euh, imam ba delluwaat ci kuréel bi <laughs> exactement euh, bi am na solo mooy revenir daal sa sànq fa fi mu tëjee mhm. par rapport ak souvent dañuy gis ñi ñoom ku ci génn àdduna sax dañuy am problème mu fi la sur comme sama li ma wax sànq mhm. te loolu maanaam gàcce gënu koo mag waaye nag nañ delluwaat ci diine rek chaque jour alxuraan moom daf bàyyiwul bàyyiwul dara mhm. Euh, suñu borom ñoom da a utal mm-hmm. armeer suñu borom ñoom utal na leen armeer mm-hmm. waaw yi nekkul yoof nekkul feneen ah mais ah. imaam xam na fi armeer yi nekk ah, mais ñun xamuñu ko waaw ñoom ñoom am nañ seen seen ñoom seen armeer mu ngi tudd sëddum mm-hmm. sëddum la tudd xanaa xamoo ni ñoom bu ñu deewee buñ leen dencee ci saasi dañ leen di jël déplacé la yóbbu leen sëddum ba pare mbugal leen fa mbugal mu tar parce que loolu la alxuraan wax non dinañ dina leen mbugal mbugal mu tar loolu loolu la leen dencal. Mhm. moo tax gis nga nañu nañu nañu nañu nañu nañu tàggat sunuy sunuy njaboot ak sunuy doom ci jàngal leen ñu xam ràññee mhm. parce que éducation bi nekk ci mbedd mi mm. éducation bi nekk ci biir kër gi mën na kaa contrer parce que tey ji boo génnee ak ay valeur ba pare génnoo ak tête nue mhm. bopp bopp kese yaakaar naa carte mémoire bu feesee dara xajatu fa mais carte mémoire bu videe loo fa loo fa bëggee télécharger di nga ko fa télécharger et ñun ay valeur rek la ñu xam et vraiment tamit di tàllalaat euh, sunu loxo bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi mhm. di leen ñaan li ñu ji li ñu mën a def ci stabilité pour dëkk bi am stabilité man loolu man loolu ma daf ma daf ma daf ma lu bari ñu def ko président Macky Sall ma koy ñaan mhm. mu gën a taxaw ci sàmm suñu ay valeur mhm. gën a taxaw ci respectel ñu suñu ay choix ci suñu diine lim ñu may gën a taxaw ci protéger jeunesse bi par rapport menaces yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy am ñun soxlawuñu koom bu ñuy añ te ñu reer duñu ndekki suñu ay valeur moom moo ñu ko gënal parce que ki ñu gëm man ki ma gëm bokk ki ñu gëm ñun jullit mm-hmm. Mm-hmm. donte réew dañ ko bokk ak ñeneen mm-hmm. ñun ki ñu gëm muy yéen saa salaam daan juróom-ñaari fan këram euh, cin cin du kon ñun bu ñu toogoon fukki fan suñu kër cin tàkku fa tamit loolu war mën a war mën a changer suñu ay valeur mais nag ni nga ko waxee sa ima ni imaam ni damay dellu si ñoom su boobaa xam naa day fekk sàmm sàmm sàmm jikko yi contexte bi waaw waaw dellu wala doo dellu fekk dangay dellu nga nga nga déclaré ko imaam dama ne fas yéene naa dama ni dama ni day fekk imam su boobaa contexte sàmm jikko bi ñuy doxee nii. Mhm. politique bi ñu ci duggoon ñu génne ko ci. ba pare may borom réew mi jàmm. Uh-huh. ak ñi mu <laughs> àndal ñu liggéey teg dëkk bi ci yoon. <laughs> teg nañ condition am daal <laughs> ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax Abdallah. Uh-huh. alors euh, imam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm am mbégte wax dëgg yàlla dalal la fii lu bari ànd nga ko ci ay leeral ñu bàyyi la yow di rek nga daal di tàggatoo ñu nuyu seen membre yëpp muy ànd sàmm jikko yi. Euh, tayib macha allah alhamdulilah walazina amanu yuxaatiruna fi sabilillah walazina kafaru yuxaatiruna fi sabili taahut différence bi rek lii la mhm. mooy ñi gëm dañuy xeex jëmale ci yoonu yàlla ñi gëmul dañuy xeex jëmale ci yoonu iblis mhm. ñun nag dañoo bëgg bokk ci ñiy xeex jëm ci yoonu yàlla mhm. cëslaayu réew mi du charia waaye sañ nañu nag parce que al surutihim bu fekkee cëslaayu réew mi du charia ba pare réew mi am lu muy àttewoo donte gënuluñu loola man sañ nañ cee dugal suñu sporox ndollu ba ñaawteef yi ñu yàq ko ba kenn ba ku ko bara moytu moytu ko ndax li ñuy bañ ko li ma waxoon léegi mooy fajal seen bopp fajal suñu bopp daal bi daal la ñuy ci réew mi ndax loolu bu ñëwee cacophonie mën naa am te bu jaxasoo amee lii Abdallah di ñaan te ñu koy sàkk ñu ñëpp muy jàmm njiitu réew mi bëgg ko keneen bëgg ko loolu du mën a am moo tax ma wax ne kilifa da ngay artu bala nga atte bala nga yegg ci atte ñu sàkku rek Macky Sall mu dégg fi sénégalais di waxe dégg tamit fi nga xam ne euh, déglu sénégalais c'est très important parce que mm-hmm. njiit bi ëpp doole ci ci ci njabootam mooy kiy déglu njabootam. yonent bi wax nga ko léegi da daan ñi mu ñi mu bokkal mbir da déglu nit ñi mm-hmm. na déglu sénégalais yi c'est damay wax rek ni rapport bi nga xam ne moom la Nations Unies. mille vingt deux mille vingt et un indi pour wax la ni gars yi dañuy doxal. Mhm. ci rapport ba dañ cee wax na góor ci Sénégal dafa am lu ñu tuddee discrimination envers les femmes. Mhm. ñu ni ci rapport bi lan moo tax luy ndeyu góor day am dix huit ans door a am borom door a am soxna. Mhm. waaye jigéen ñu dañ koy may ci seize an ñu ni loolu d'accorduñ ci discrimination la jigéen dafa war a dem ba am dix huit ans. ba majeur ñu soog koo maye ñoom ñoo war a tolloo. gënu gënu ñu ne waat lan moo tax góor bu soxna soxnaam génne àdduna dafay toog 300 jours ndaw si day toog trois 300 jours door a am boroom kër. Mhm. waaye ku jigéen ki moom ku góor ki moom bu ko neexee bu subaa mu takkaat ñu ne loolu discrimination la. Mhm. dañ ko war a xoolaat te loi yooyu dafa nekk ay loi yoo xam ne senegal nangu na ko ca protocole de Maputo. ba pare waaw nangu na ko ba pare. Mhm. li des mooy doxal ko doxal boobu nag moom lañu ñu mënul a indi ci réew mi. dégg nga wax li ma la mhm. doxal doxal bi. Mhm. moom la ñu mënul yaakaar naa maa ngi document bi fii. waaye doxal ko moom moo leen xaw a jafe. kon donte donte ah. nangu nañ ko mais mënuñu ko doxal. parce que li tax mënuñu ko doxal mooy. maanaam dañoo dañoo dañoo jënd sabar guñ munta tëgg dañoo jënd sabar guñ munta tëgg yéeneen ngeen téye bant bi ne du ngeen ko fi tëggee téye moo tax fii yaa ngi dégg mu ne incompatible mhm. avec les traités internationaux ratifiés par le Sénégal le CEDEF la CEDEF ñu ngi ko ratifié ci CEDEF mhm. mu ne et le protocole de Maputo euh, la CEDEF impose les obligations aux pays membres pour interdire la polygamie. te pays membres yi Sénégal da cee bokk. da ah, polygamie mooy maanaam tere ay jabar. Ah, waaw bëggaat yeneen. <laughs> su boobaa ma bokk sam ànd sam <laughs> boobu nag lay bokk. ba pare mu doon la ci mu ni. waaw. le euh, protocole le protocole de Maputo. yow nga sa tere lan. le protocole de Maputo encourage également à la monogamie. Mm-hmm. mu ne lii ci rapport ONU rapport rapport Nations Unies 2020 2021 maanaam monogamie maanaam ñoom ñooy wax Sénégal ni leen waaw la ngeen signéwante woon ak ñun fii mm-hmm. ca at yi passé wax ni da ngeen koy doxal mm-hmm. ba léegi doxalu leen ko ñoom ñoo bind rapport bi ni ba léegi dafa am ay sooxe discrimination yi ñu wax ne maanaam Sénégal dafa nangu ne dafay aaye ku am lu ëpp benn jabar daf ci bokk waaw man du ma sénégalais man gambien la su li amee man gambien la waaw dëkkuma Ah, ah. xanaa yow man xëy am waaye lii moom mënta am Sénégal xam nga mënta am xam nga kaaw mënta am c'est très dangereux mënta am mais gis nga ku ci bëgg a bokk da ngay fay déedéet doo fay dara doo fay doo fay dara carte membre doo am dara sax su la neexee wala tey nga di bokk laa mais bu ñuy xeex ku am ah, bu ñuy xeex benn jabar ci laay ñëw bu paree ma dem su ma soxla rek waaw bu nekk la yëkkati ko am solo yoo xam ne xam nga yu mel nii ñun salaasa la ñuy commencé te dina baax yu mel euh, nii waaw yu mel nii dafa am dafa yu mel dañ la koy forcer te loo ko xam mm-hmm. léegi ñi koy togg doo leen gis. Mhm. ña koy nangu doo leen gis. dañ koy mhm. nangu ci turu intérêt. Mhm. boo xam ne dañ naan boo leen ko nanguwul ay rapport international la. su ngeen ko nanguwul intérêt sangam du dugg si. barab sangam du ngeen fa am ñu ne nañ ko nangu xam nañ ñoom dañ naan ñun ko nangu ko nangu rek garaawul. ngir mën a am ci loolu. ngir léegi nag. léegi nag mais bu ñu demee ba at jot. du si leen am appéage. bi bu ñu demee ba at jot ñooñu ñu ñëw ak document daañu leen yéen li ngeen ñu waxoon la oustaz yëgal leen Macky Sall lépp ñun baal leen ko ah, <laughs> waaw donc li mooy li mooy problème Sonko yéen ñu doon jaxase ak moom mais ñun baal leen mag président li muy wax nii li muy wax nii donc vraiment dafa ndoroog li li waa ji waxoon président Léopold Sédar Senghor eh. ni ko am na xeet benn xeet ci étranger yu nekk Sénégal ñu ngi tabax di tabax di tabax di tabax boo moytu dinañ nangu réew mi mm-hmm. président Senghor ni ko demal ca frontière ba bis boo gisee mu jël immeuble bi di ko yóbbu dëkkam rek nga wax ma ko mm-hmm. maanaam buñ demee ba naan Sénégal nangu na Mm-hmm. nii góor nangootuñ ko ñaari jabar wax dëgg yàlla mm-hmm. loolu mooy nag. loolu non non xam laas wax dëgg la de non non non non dëgg la lii moom ma yóbbu ànd sàmm jikko lii moom ma ci yóbbu dama ni la il faut lii dëgg la de dëgg li mm-hmm. ma amul dama ni bu fekkee senegal dafa nangu loolu maanaam su boobaa mooy góor ja jaay na mbaam mais nopp moo du dem. mais loolu problème bi mooy ngir am intérêt wala daf ko nangu ngir nax ñu ëllëg mu imposé ñu ko suma problème la. imposé mënta xam nga tey mooy mooy li ma la wax dafa ne day day nangu mais bu nekkee réew mel Sénégal dañ naan dafa am ay valeur mhm. a ah, suñu ay valeur nag nanguwul de mbaa xam ngeen loolu gars yi ni waaw xam nañu nag suñu seen valeur nangu ñu mhm. ñu ni léegi da ngeen ñuy may mhm. temps temps boobu dañ koy jàpp dañ naan dans cinq ans dans six ans ngeen may ñu. dans trente ñu dugal prox ndoll boobu ci. ci dugal ko système éducation ñu fexe dugal ko si. créer ay ministères créer ay nangam. def ko ci série merci. yee maa ngi ànd sàmm jikko yi yéen yi sax léegi mike yi sax. léegi dañ ciy def affaire góor jigéen ah bon ah oui. Spiderman non yooyu ça va mais Spiderman waa yooyu jabar laay bañ bëgg xale dañ ko bëgg Spiderman yooyu waaw man jabar mooy yooyu la <laughs> def nga ko ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm hmm. yaakaar nañ ne sénégalais dinañ ci hmm. bàyyi xel ci nu mu gën a yaatu hmm. yaa donc kon ma tënk rek te daaneel kon gëmi mo li ci li ci li ci nekk dafa bëri li yooyu loolu duuf ci nag bi xale ci inshallah dinañu ñëwaat

yàlla defal jàmm macha allah ñaanal baax a baax a baax bi macha allah yal na yàlla barkeel te def moom su loolu amee dana ci ànd ndax benn jabar la am te fas yéenoo te ñaareel non day day am macha allah macha allah loolu la ñuy xaar. Mhm. kon yàlla def jàmm. ci parab bi eh, kese. <laughs> ah waaw xam nga ànd sàmm ji koy xeexuñ bokkale yàlla. ñoom góor jigéen la ñu xeex moo leen ñor. man ku ma tere ay ñaari jabar ma bokk si xeex. damay bokk damay bokk yàlla yàlla barkeel maa ngi euh, ak yéen euh, plateau bi di gën a bu baax Fadel euh, ci te nga jéggalu Père Mangone numéro bi nga jox commissaire <laughs> Cheikh ak euh, Abdallah mhm. imaam yow tam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëmaale si kuréel gi nga bokk muy ànd sàmm jikko yi di leen gën a rek ñaax ci liggéey bi rafet bi nga xam ne euh, tàmbali ngeen ko metti nag waaye xam nañu ne euh, di ngeen ci ànd ak jàmm di gërëm suñu internet yi nga xam ne ñoom ñuy safoo di ñu seetaan moo xam ñu ne Sénégal moo xam ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew di gërëm Fatima Zahra ci reportage yi am solo yoo xam ne mi ngi koy def waaye tam gërëm également Lamine Ariane Sy ci caméra bi Djibi Sy ak Hamza nga xam ba mu fi ñëwee ci kër gi lépp lu mu amoon rek lekk xam naa ne kuréel gi dina ci ñëw bokk ndax moom it dafa nekk ci góor yi nga xam ne dañoo war takk soxna yu bari euh, macha allah di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñooy safoo euh, Dakar Buzz TV euh, beneen semaine ak beneen thème seen émission di ci biir désolé moom.